asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi am euh, mbégte euh, di leen talal ci seen émission allo docteur ni ñu koy defee euh, talaata bu nekk 19h ba 20h30 ñu ngi ànd habituellement ak Val d'Afrique mooy suñu sponsor bi leen di may émission bi ànd aussi. ak ordre des médecins ak Sud FM tey jii di talaata yemoo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2020 ñuy am mbégte di dalal encore une fois docteur Ousmane Gueye euh, di directeur SNEP service éducation ak information ci wàllu santé docteur Ousmane ñu ngi lay nuyu. Ah, maa ngi leen di fay euh, soxna euh, ci wàll gi itam ñu ànd ak Serigne Bou Mohamed Kounta di vice-président CRSD cadre des religieux pour la santé et le développement. ñoom ñaar nag dañu leen fi euh, euh, dajale li ñuy waxtaan waxtaanee jëm ci mbirum euh, coronavirus li ñuy njëkk a def docteur mooy balaa ñuy soobu ci waxtaan wi ginaaw bi ñu nettoyé loxo yi ba mu set ngir mën a respecter mesure ministère de la santé est-ce que suñu diggante sàmmante nañ ak soroyanto bi ñu war a soroyanto déjà li ñu toogee nii. waaw eh, jërëjëf Ndeye Khady <laughs> ah, mu nuyu sa auditeurs yi ak auditrices yi. <laughs> Eh, nuyu waa Sud FM yëpp. Eh, di leen ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm. amiin di nuyu suñu sëñ bi ñuy bokkal jotaay bi. <laughs> sëñ Kunta. di ko jox wàccuwaayam. di la wax ne effectivement bi ma ñëwee loolu laa njëkk xool di bi may dugg. seen vigile bi suuf jox na ma alcogel. waaw ma. Euh, fomp suma loxo. ba ma yéegee aussi disposition bi tam dal na xel. parce que entre ñun. ku ci ne am na peut-être mètre ak genn wàll suñu diggante waaw waaw donc loolu lu am solo la kon bisimilah mën nañu commencé en sécurité jërëjëf incha allah euh, jërëjëf euh, docteur kon loolu la ñu introduire diggante démb ak tey am na ay xibaar yu bare bare bare bare yoo xamante ne nguur gi génn na ko mu jëm ci wàllu jàngoro ji Euh, mu di xibaar yu njëkkee ci euh, njiitu réew mi ñoo fekk si yeneen xibaar yi ñu doon jël bi fi jàngoro ji euh, duggee ak léegi bare na ci bopp askan wi dajaloo na mais aussi am na jàngat boo xamante ne mën nañ ko ci def ñu bëggoon nga wax ñu ko ci wàllu kër docteur waaye itam ci wàllu diine ji ak Serigne Cheikh bu d'abord yow laay njëkkee docteur Ousmane lan moo xew ci jàngoro coronavirus ba. ñaari fan yu mujj yi diggante démb ak tey mu mel ni mesures dañoo gën a tax. waaw euh, loolu boo ko seetloo dafa méngoo ak doxalin euh, nguur nan la war a doxalee ci kanam euh, feebar mel nii. Mhm. mais aussi ci évolution feebar bi. waaw parce que boo xoolee ci njëlbeen maanaam avant ñuy am cas balaa kenn di feebar Sénégal fii toogoon nañ ministère de la santé toog xalaat ni. nan lañ war a doxalee bu ñu amee malaat ak yooyu. donc stratégie yëpp tegoon nañ ko en en place mais bi ñu demee le 2 mars précisément bi ñu amee le premier cas. waaw euh, sensibilisation lañ gënoon def. <laughs> di gën a sensibiliser di waxtaan ak nit ñi parce que cas bu njëkk bi dañ nekkoon cas importé mooy li ñuy wax cas importé maanaam ku ko jëlee bitim réew indi ko. dugal si waaw dugal ko. donc amutoon benn euh, relation ak nit ñi fii <laughs> donc. yooyu jarutoon yenn mesure draconienne yi wala yenn mesure yi dëgër yi. waaw donc ñu demoon mais bi ñu demee ba tey jii ñi naan nit ñi am ngeen transmission communautaire. Mhm. xëy dinañ ci dellu soit pour firi lan mooy transmission communautaire. waaw ah ñu ne am na transmission ci biir askan gi. donc am na ñu ko am te xamuñu fan lañu ko jëlee. ko jëlee ñu ko jëlee donc bi mesure bi loolu amee rek il important que nit ñi toogaat xoolaat suñ doxalin. ah jël ay mesures yoo xam ne méngoo na ak loolu loolu moo tax tey ji nguur gi ñu ngi koy remercier au passage parce que li ñuy def ni xëy na loolu mooy rôlam waaw loolu mooy rôle am mooy bokk na ci euh, loolu li tax ñu teg ko fii parce que aar askan gi loolu ci la mais aussi dëggal na techniciens yi mu teg sur place. voilà loolu de te de telle sorte tey jii euh, ñu ngi rafetlu mesures yi certes dina métti ci population. mais dafay loo xam ne war nañ ko mën a nangu pour ñu mën a aar suñu bopp. suñu bopp déjà d'accord euh, Cheikh Bou Mouhamed Kounta di vice-président cadre des religieux pour la santé et développement euh, mu di kuréel gu ëmb ay euh, kilifa diine bokk ci ay këri diine yu fasantikoo fii ci Sénégal. Euh, dégg nga docteur Ousmane Gueye lu mu wax ci diggante démb ak tey mesures yi ni mu gën a taxe loolu kon am na lu muy tekki mooy ni jàngoro ji ni ko njiitu réew mi waxe démb mu ngi gën di xuus ci askan wi gën mel na daf ñu bëgg a wër ndombo euh, ci jamono yu mel nii lan moo war a nekk taxawaayu ñu yëngatu ci wàllu diine ji. jërëjëf alhamdulillah xaaliqi alladi lahu junuudu samawati wal ard wa sallallahu wa sallama ala sayyidil xalq sayyidina muhammadin alayhi salaam wa ala alihi wa asxaabi asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam Khady gannaaw bi ma la nuyoo di nuyu docteur Guèye di nuyu waa Sud FM yëpp waaye di nuyu it ñi nga xam ne ñooy déglu ñi nga xam ne mooy Sud FM mais di nuyu waa Sénégal yëpp ndax xam naa ni émission yi bari na ñu koy suivre ndax am solo gu mu am solo rawatina nag ci jamono jii ñu koy defee nag nga xam ni problème mu santé dafa taxaw te bu taxawee ñëpp war cee def seen loxo diine nag def su ci def ci gannaaw kon diine am na ci taxawaay boo xam ne tey jii am nañu luñ ci indi incha allahu ngir war ko participer en tant ay religieux yoo xam ne am nañu mbootaay goo xam ne ci li ñu yëngatu muy ONG cadre des religieux pour la santé et le développement ñuy liggéey ci wàllu santé ak développement kon bu mbir mu taxawee ñun waruñoo des gannaaw ci loolu kon la ñu ñëwee ñëw nag ci kaadaru xam ni yàlla yit mooy ñëw ak ay mbiram moo tax bi may ubbi léegi dama ni maa ngi sant borom bi nga xam ni moo sàkk waaye moo sàkk nag waaye mooy ki nga xam ni mooy am ay soldaar yoo xam ni ñoo nekk ci diggante asamaan ak suuf yii ñu leen di gis yii ma ñu leen a gis tey bii def ci bokk mm-hmm. muy virus bi nga xam ne tey lëmbee ne àdduna jaaxal na nit ñi fu nekk ñu fa daw jëm waaye fekk na yàlla yit waxoon na ko te joxe na ci ay solution jaarale ko ci sang bi di sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam incha allahu ci kanam. Mhm. yooyu yëpp daañu ci ñëw. d' accord euh, jërëjëf ci introduction bi euh, Cheikh Bou Mouhamed euh, Kounta docteur Ousmane sànq wax nga ba tudd lu ñuy tuddee transmission communautaire bu njëkk ba wax nga dëgg kaa importé rek lañ doon wax bitim réew la jugee dugg fii moom moo wàll diw ñu xam fu mu jugee waaye su ñu demee bay wax transmission communautaire mel na ni jàngoro ji dafa gën sew gën a ci biir askan wi. Euh, xamuñu kan la ku ko ci kan la ko jëlee euh, loolu dana jafeel kon nga mën a remonter pour mën a yegg ci fan la cosaanoo pour nga mën ko fa xëy na jéem a xëcce génn sànn ci biti euh, transmission communautaire yéen ba ngeen ko njëkkee dégg lan la seen xalaat daw. waaw xam nga transmission communautaire lu mel nii bu amee da ngay ñaan bañ a am loolu. waaw waaw bañ faa yegg. bañ faa la ngay ñaan mooy nañ desoon ci cas importe faj ko circonscrire ko mu jeex. Mhm. di moytu transmission communautaire loolu moo tax depuis ci njëlbeen ministère la santé action sociale ñi toppoon askan gi naan leen def leen. di wax di leen di ñuy wax di wax. di wax bay ñaax suñu euh, compatriotes di nekkoon extérieur. Mm-hmm. di ko di leen naan mën nañoo toog fu ñu nekkoon wala bu ñu ñëwee nañ signalé ko. malheureusement. Euh, lu mel noonu nit ñi topp ñu ko ba finalement ñi am transmission communautaire bu ñu daan transmission communautaire day doomu jàngoro bi dugg na ci société ci gox walla ci dëkk te xamoo fan la soqee ko doo bàyyi nag di nga continuer di wër pour xool fan la jóge mais c'est très difficile nga xam ko loolu moo waral mesures yi suñ ministre daf koy misaal naan euh, boo bëggee dem cees da ngay jël oto dugg mais virus bi moom bu buggee dem Thiès. ci nit ki lay dugg. <laughs> ànd ak mm. waaw nit ki mooy nekk oto. <laughs> moo koy transporté voilà moo koy transporté. loolu moo waral tey ñu ne nit ñi toog leen benn place. Mm-hmm. xam nga image bu simple mu ngi nii boo xam ne mën naa woon nit ñi li tax tey ñu ne ñi ñu wàññi seen déplacement. Uh-huh. waaw transmission communautaire dafa eh, jafe faj. dafa jafe cerner. Mm-hmm. man mënoo ko traité. sans pour autant nga jël yenn mesures yi. Mhm. waaw loolu moo tax transport inter interurbain bi tey ñu réguler ko. Oh. wax nit ñi war nañoo wàññi. defe naa y'a une semaine de cela ñëwoon naa fi benn émission. Mhm. ma koy wax ma naan euh, euh, Ndiaye Diop moom mooy invité woon. Maodo ma waaw Maodo. Mhm. ma naan ko war nañu mën a dem. ba tey transport urbain bu doon def vingt quatre places ñu def ko douze places. yegg si def nañ ko tey. ma naan leen. chauffeur bi war naa mën a tàkk masque mais ñuy dugg ci oto bi tam war nañoo tàkk masque hmm. Hmm. war nañoo euh, fomp parce que mesure yooyu rek lañ mën a def pour mën a arrêter transmission waaw waaw bu ñu ko deful rek du baax ci réew mi du baax ci askan wi parce que certes problème santé mu ngi fi mais impact bi du yem foofu mhm. du yem foofu dana laal société bi évidemment société bi mooy dundi nit ñi ni ñu nekkee ci eh, biir société mais dina laal vole économique. Mhm. gafaga gi dafay métti. donc laata ñuy àgg foofu te mu ngi nii vraiment eh, quel que soit alpha impact yooyu dina am commencé na waaw impact yooyu dina am mais nañ ko eh, ralentir ñu amoyendir ko loolu moo am solo moo tax respect directive présidentielle yi moo am solo respect mesures sanitaires yi ñu am solo am bu ñu ko defee vraiment war nañ ci mën a génn. d'accord mesures yi ñu wax sànq dinañ ci ñëw euh, ci biir émission bi xool euh, application beek ñan la concerné diggante dem ak tey euh, Cheikh Bou Mouhamed mhm. mbas yu mel nii daan na am ci yoon wi yoonu l'islam ak mhm. yan jàngat ngeen kii am yéen kilifa diine yi dëgg la lu lu daan am la boo xoolee sànq si introduction moo wax ma ni yàlla moo yor ay soldaaram yoo xam ni yii ñu ngi leen di gis waaye am na yoo xam ne mu ñu leen teg bët ba yàlla ci borom eh, ci boppam waxal ko boppam ni walillahi junuudu samawati wal ard man yàlla maa yor samay soldaar ñii ngi asamaan ñii ngi suuf keroog xare badar bi mu amee moom yàlla wax na ko bi jullit di jàqee dem bañ leen di gañe yàlla ne maa leen yónnee ay soldaar yoo xam ne ñoom mënuñu leen a teg bët waaye loolu yëpp kon dafa bokk ci façon yi nga xam ne yàlla dana ko wane boppam lii it daana am ci jamono yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoy saxaaba yi fu ci nekk it am na ci euh, ci jamono yonte bi mën nañ ci indi benn exemple boo xam ni euh, soxna Aïcha di Aïcha am di soxna am moo doon wax ak yonte bi alayhi salaam laaj ko di ko taaun lan la taaun mooy mbas mi nga xam ne am na tey mhm. arab di ko wax taaun mu ni ko lan la mu ni ko taaun day moom ay duma la ci ki gëmul yàlla waaye nag yërmande la ci ki gëm yàlla waaw xam naa neexul dégg nag <laughs> mais yërmande la ci ki gëm yàlla mm-hmm. ndax dina ci dellu ci yàlla te dina ci dina ci jàngaate ni moom war na am fu mu teg tànkam dina ci defaruwaat daal dana ci te it dina xam ni topp ndigal it war na ci mm-hmm. docteur war wax na ko léegi waaw topp ndigal war na ci li nga xam ni it mooy mooy éducation war na ci mm-hmm. li nga xam ni it mooy euh, respecte euh, li muy dundee loolu it war na ci kon moo tax mu ni ko yërmande la ci jullit bi mais yemu ci mu ni ko it parce que jullit ñaar moo koy dal te bu ci nekk bénéfice la léeg mu am xéewal léeg mu am nattu mais su amee xéewal bu santee yàlla dolli moo tax yonte bi ni yéem na ma mbirum jullit ndax lépp a mbiw la su amee xéewal sant yàlla dolli su amee nattu muñ yàlla fay ko gis nga ñaar yi bu ci nekk moo tax mu ni la kon lii nga xam ne mbas la metti na waaye mbirum mbirum euh, jullit la bi ci des ba ci jamono yi saxaaba yi ridwanullahi alayhim jamono yu omar ibnul xataab amr ibnul as ñoom ñëpp dund nañu ko ci ay exemple yoo xam ne mën naa buñ ci mën a joxe léegi mm-hmm. ndax euh, kii di omar doon na dem di di xeexi euh, war a dem Cham bi mu demee ba ci yoon wi dégg ni foofu kat am mbasa nga fa mm-hmm. mu ne ah, soldaar yi taxaw leen def euh, diisoo ak ñoom bi mu diisoo ak ñoom ñi ci ëpp dañ ko nii nañu dem mais moom ci gis-gisam mu ni déedéet bu ñu dem nañu toog euh, Abu Ubayda ibnul Jarrah kenn la ci ñi nga xam ne ci kàngami saxaaba yi la bokkoon di ko ah, ndax da ngay daw dogalu yàlla mu ni ko ah, damay daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla <laughs> dogalu yàlla bi mooy mbas mi fa mu nekk dama koy daw jëm ci dogalu yàlla mooy moytu gi ba am ba am ba am wér mu ni ko foo ko teg mun ko yonte bi alayhi salaatu salaam moo tax lislaam kenn du moom gis nga tey mesures yi ñuy jël yëpp islam jàngale woon na ko mu ni ko foo ko teg mu ni yonte bi waxoon na ni su ngeen déggee am mbas ci barab ña dëkk ca barab bu ñu fa génn waaye ña fa dëkkul bu ñu fa dem tey mel na tey moo am tey <laughs> voilà moo am kon luy ay njàngale l'islam la yoo xam ne defe bu buñ ci toppee rek dañuy am solution incha allah incha allah kon en attendant ñu daal di wax ne ubbi nañu antenne bi ci 33 825 18 ñu ngi ànd ak docteur Ousmane Gueye di directeur euh, SNEPS ak euh, Serigne Cheikh Bou euh, Mohamed Kounta di vice-président cadre des religieux pour la santé et le développement ñoom la ñuy fas yéene àndal asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa <laughs> Euh, Adja maa ngi ni nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay El Hadj Touré. Euh, maa ngi nuyu oustaz boobu Kounta maa ngi nuyu docteur Guèye baax maa ngi leen di ziar bu baax di jaar waa Sud FM yëpp. alhamdulilah ko yëpp maa ngi leen di ziar di ñaan yàlla sànni yàlla yàlla tëjul feebar nekk yàlla ko yàlla tëjul sànni ko ci àll maa ngi ziar bu baax sant di wax Ahmed Tidiane man de lu ma doon laaj laajte docteur mooy léegi léegi laa wàcc si yi léegi fu mu nekk surseté wuñ moom surseté wuñ surseté wuñ bàyyi nañ ko surseté wuñ mhm. mais place ba nga toog nga jóg su morom ñu toog encore yow encore nga ñu at ko est ce que loolu tamit encore gars yi programme nañ est ce que loolu tamit encore est si que ci indi dara quoi waaw loolu moom lañ koy laaj waaye mais oustaz lu mu koy laaj mooy euh, ci biir jumaa yi jumaa yi ñu tëj mhm. bon ndax euh, communication bi taj na ñëpp parce que dafa damaa gis kat ñi xam ne ñii tëj seen juma ñu ne kenn dafay julli ñii ubbi ñu naan dañuy julli ji boo am ay gàllankoor ak ay kay ndax loolu jar na ko ndax loolu lislaam santaane ko te santaane nag ñi xam ne yow ngay dem ko xeex tey li ñuy tere ba pare après nga dem ko ci xeex te da nga am xam loolu laay laajte oustaz asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mm. waaleykum salaam wa rahmatulah euh, ñu euh, xool euh, ñaar wala ñett ñu ci teg balaa ñu leen di dajale bàyyi suñu ñaari gan yi ñu tontu asalaamaaleykum. allo maaleykum salaam. Euh, sëriñ bi na nga def. sant rek Ajaratu Ndeye Khady Diop. fooy wootee. 93 point 2. ayca Barke Diop Sarr. Barke Diop Sarr ñu ngi lay nuyu Barka. yow de moom wax dëgg yàlla yaa ngi ñuy jàppale si suñu santé. yow moom danga ngaa jiitu ñëpp si coronavirus bi. waaw ñu lay gërëm. di la ñaanal yàlla taxaw la. allahumma amin. wax dëgg yàlla si defee moom amuñu seen fay. <laughs> waaw te bi nag dañ koo war a jox ñi ci war a wax ñi daan wax ba dara xewul war nañ leen koo jox ñu koy wax ñu mel na yow may laaj nag docteur boobu fa nekk mhm. ñoom seen jumtukaay yi ndax mat na ndax ñoom ñooy premier obstacle ak ñeen tamit journaliste yi nday xadi yéen ak ak ak ak ak revue de euh, may laaj ndax yéen tamit jumtukaay yëpp mat na ci boobu boor ndax ñu ngi koy xalaat te feebar bi yaakaar naa ne rey nañu bari ñu ñu waxul parce que Sénégal ñun duñ def autopsie te saa su nekk nga gis ñu dee te Sénégal xam nga ñun lépp tamit état bi duñu mën a wax lépp mu ngi mel na sa Casamance bu juróom bu cinquante daan dee dañuy wax juróom a dee te ñu ne lii kenn du ko faj te fu ñu tourné ñu ñu ngi wér may ñaan nag yàlla dimbali ñu te sëriñ boobu toog foofu ñuy wax ci mbirum islam ñu ni am na kuñ ja ku ku ku ku infecté à Gambie te ñëwoon na fii Sénégal te toogoon na ak chef religieux yu bari may laaj kooku kan la ndax waruñu koo mën a nëbb ndax ñamu toogaloon maa ngi gàttal bi leen gërëm di leen sant jërëjëf. Mm, jërëjëf euh, Barke Diop vingt 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp ànd ak docteur Ousmane Gueye directeur SNEPS e ak Cheikh Bou Mouhamed Kounta asalaamaaleykum. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. honorable député la de. Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari la. Noox ñaa ñu ngi lay nuyu. ngi lay nuyu di nuyu président directeur général bi ak yéen ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm. ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mi yore jàmm te dara ko doyoo ko dara yàlla da leen jàmm pare te saaraka ci ñi nga dalal foofu ñoom ñëpp. ñu sunu ak sunu médecin bu mag boobu toog xam nga yow Ndeye Khady man wax naa ba ne tamit ci émission bi. man xam naa lan mooy mbirum wér gi yaram ndax amul benn bitig boo xam ne da nga fa dugg rek ne ko jaay ma wér gi yaram damay dem sama yoon amul alxuraan tamit wax naa la fii keroog ne la ba ni mu jeexee gisuma ci Sénégal yàlla tudd ci benn yoon Sénégal mais nun dafa mel ni loo bëgg ci lu baax rek wala àjjanaa yëpp Sénégal nga jëm si tubaab yi yow ne xaja boo xoolee ni ñuy jële mbirum wér gi yaram nii États-Unis d'Amérique ci ñu frontière France gis nga ko ñu naan six mille ba ñun ñu toog Sénégal am ñuy werante naan feebar bi am na fekk amuñu fi man ñu <laughs> dañoo dëgër boppam Sénégal yi fii bay ko ñu wax ko mu leer ñun maar day taali bay waa médecin yéen ngeen góor ngóor dimbali ñu rek ba feebar yem ci kaw parce que bu wàccee ci bâche danañ jax de ñun danañ jeex de parce que ñun dañoo dëgër bopp tubaab yëpp ngi prévenir ñii nit ñi ñu ngi jóg ak ay médecin ñeen ñi tëj seen frontière ñeen ñi ne seen réew toog leen ñu fay leen bu kenn bougé parce que xam ne feebar bi nit ñi toog fii di ko werante ba nëgën loolu lu ma jaaxal la mm, beneen bi yëf médecin boobu ma di ko wax ko ma di ko laaj parce que àll bi fii ñun ñu ngi dëkk ci commune rurale bu Thiamène Maymouna Mbaye suñu dispensaire yi fi nekk nii fi may wax nii amuñu sage-femme d'état amuñu dara maanaam gouvernement bi matukaay yi mu jël egseegul fii ci ci village ma di leen ñaan ñoom tamit ndax dañuy jéem a créer benn affaire indi ñu ci village bi nga xam noonu amuñu sax dara ban matukaay lañ jël ci kaw kaw yi parce que ñoo ngi bëgg de jërë ngeen jëf. jërëjëf su fekkee amul ko rëcc ñu taxaw daal di tontu euh, Assane euh, ci 33 825 18 30 kon dañuy njëkkee euh, ci El Hadj Touré Dakar Plateau nee na léegi la wàccee ci Tata amul surcharge waaye nag li ko xaw a jaaxal docteur mu bëgg ko laajte mooy le fait que nit jóg nga daal di dem subitement toog ci place am ndax foofule am na risque loolu mooy laaj bi mu la jox bu ñu paree ñu doog a dem ci Cheikh bu ci jumaa yi. waaw am nga euh, en fait lu mu wax lu euh, am solo la lu am solo la parce que euh, defe naa dañ koy gis sax ci publicité yi temps yi biche yi ni ñu leen di désinfecté di leen <laughs> décontaminé loolu war nañ ko def war nañ ko def en fait normalement normalement mhm. nit ki bu génnee toog ci place jóg war nañ mën a désinfecté foofu avant keneen di ci toog loolu mooy yoon xam mhm. nga loi nag day ñëw mu am loi am décret am ay arrêté yu sew sewaan yooyu foofu lañ koy bind foofu lañ koy bind ministre wala président mënu taxaw ne boo wàccee car rapide nii la ñuy def ak yooyu loolu ci eh, ci arrêté yooyu lay nekk en plus de cela nit ñi aussi cette eh, explication yu ñu leen di jox ci feebar bi yeete bu ñu leen di jox ci feebar bi moo war a tax ba nit ñi war a mën a changer comportement ñoom seen bopp parce que am na yoo xam ni kenn du la ko jàng nee la Euh, feebar bi mu ngi par voie aérienne ak sécrétion yi mm-hmm. sécrétion yi maanaam mën naa nekk boo sëqatee nii par exemple voie aérienne nga sëqat tuflit bi dal ci euh, toog bu nga nekkoon mm-hmm. ja euh, doomu jàngoro bi mën na fa def ay waxtu te mm-hmm. du te du dem waaw kii ñëw teg ci loxoom toog jël loxo boobu après fomp bëtam wala fomp gémmiñ bi ak yooyu doomu jàngoro bi jaar foofu mu indil la feebar xam nga donc Euh, am na comportement yoo xam ne ñun ñoo ko war a changer parce que dañ naan situation bu bees rek am mu am comportement bu bees waaw nit ku ne loolu nga war a def situation bu bees am na nañ am comportement bu bees ñun ñëpp ñu moytu loolu li mu wax lu am solo la il faut euh, chauffeur car tata yi chauffeur transporteur yi yëpp ñu am ci euh, xalaat boobu c'est très important <laughs> Euh, communication ci mosquée bi xam naa mën nga ci wax balaa ñuy jox Cheikh bu nee dañ ko tëj waaye euh, est-ce que ñu ngi continuer communication bi ci ci wàll boobu waaw euh, def naa tey déglu nañu ministre de l'intérieur nee na bi ñu bi ñu njëkkee wax nañu moytu rassemblement rassemblement am nañu suivi de près de quatre-vingt-neuf pour cent ci ñu topp mesure bi waaw bi donc mu desoon à peu près onze pour cent yoo xam ni suivre gu ñu mesure bi nee na xëy na fi la ñuy wax ajjuma bi dinañ am cent pour cent parce que aussi moi je je li muy wax euh, askan boo ko yoree aussi même booy def mesure day ànd ak waxtaan expliquer lan moo waral lii lu tax ma teg leen lii voilà convaincre leen nit ki bu approprié wu ci mbir rek doxal ko day yomb day waaw loolu noonu moo tax ma d'accord ci gouvernement bi nu muy démarche bu ñuy def nii am na ñoo ni koy diingat naan ay eh, non dañu war a imposer ak yooyu déedéet tollootuñu foofu defe naa àdduna ak moom dox na dox goo xam ne nit mënatul toll foo xam dañuy imposer ak yooyu mais defe naa on a un peuple intelligent boo xam ne xam nañ tey jii fu ñu toll bu ñu waxee ak ñoom war nañu mën a topp nit ñi sans problème c'est la raison pour laquelle moi j'ai espoir que nit ñi comprendre nañ ne effectivement muy jàkk muy euh, jumaa ja muy muy muy église ba muy muy euh, marché yooyu yëpp ay rassemblement nit la il faut ñu éviter danjaloo bi dama doon joxe exemple tey ma ne boo gisee ma am ci yaakaar ne nit ñi dëgg nañu euh, message c'est vrai que war nañ continuer du ñu arrêté mm-hmm. war nañ continuer parce que dama romb ci bërëb bu ñuy jaayee mburu ma gis nit ñi rang mais rang bi entre deux personnes diggante bi matoon na plus d'un mètre. soriwoon nañu waaw ma ne c'est c'est c'est bien. bien. ma gis ni changement baa ngi ñëw ci waaw ma gis ni bu ñuy dugg boutique bi du euh, boulangerie bi du ñu ub et du ñu dugalandoo quatre personnes deux personnes la ñuy dugal ma ne ça c'est très bien. Mhm. te mu amoon ay affiches mu am euh, euh, gel. gel waaw gel ma ne mais donc message mu ngi jàll. mu ngi jàll war nañ ko continuer. war nañ dem au-delà de de de de des capitales. Mm-hmm. mais je vois que yi commencé nañ approprier tey boo xoolee circulation bi gis nga c'est fluide. dafa fluide parce que aussi am na secteur yoo xam ne bu fekkee wóor na la ne présence nit ki présence physique nit ki c'est pas nécessaire mën naa toog. Mm-hmm. je pense que ça également. c'est important parce que gis nga euh, tubaab yi ils sont pas plus intelligents que nous. Mm-hmm. ñun ñëpp ay borom xel lañu ay borom xam-xam lañu. tey jii ñoom indi nañ concept de télétravail. Mm-hmm. mais mun nañ ko def fii. lu ñuy mën a mun nañ ko appliquer fii. nit ñi mun nañu toog seen kër liggéey. Mm-hmm. Euh, sans pour sans sans pour ñi gàllankoor seen seen seen liggéey. en dehors sa yenn secteur névralgique yi. voilà c'est ça je pense que yooyu yëpp ay euh, situation bu bees moo koy indi ba nit ñi war nañ mën a. adapté wu donc moi je crois que tey jii interdit yi ñu am c'est vrai métti na. parce que un, musulman boo ko ne bul dem jàkk ça pose problème mais euh, euh, imam mu ngi fi xam na li ci lislaam wax mm-hmm. parce que bu ne euh, yàlla yonent ne na boo demee jib dëkk boo xam ne am na bas bu fa dugg mm-hmm. waaw ñi fa ne tam buñ génn mm-hmm. donc depuis le septième siècle bi ñu ko waxee réglé woon problème bi problème boobu c'est c'est réglé donc tey waru mën a poser problème ci nit ñi voilà man noonu laa koy Euh, euh, euh, xoolee analyser pour wax ni vraiment il faudrait que ñu respecter mesure bu ñu bëggee génn ci teel ci ci ci jàngoro ko ci Cheikh Bou mhm. wax na ko onze pour cent yu des ci wàllu mesure bi ñu jël ci tëj juma yi mhm. ak jàkka yi mhm. julli ak juma ci dem ci jumaa defe ko fa ndax lu mënta ñàkk la waaw jërëjëf du julli ak juma rek xataa julli yeneen farate yi sax nga xam ne mbooloo ñoo fay daje islam noppiwu ci ndax islam dafa ñëw pour nit ki dund fii dund bu teey waaye dund koy ëllëg bu demee wuy ji boroomam kon lépp daf ko organiser moo tax it euh, bàyyiwul dara ci loolu muy mbirum jàkk yeeg lislaam bi euh, jumaa yi indi na coow lu bari ci Sénégal dégg nañ fi àjjuma ji passé ñii julli nañu ñu fi ñee julli am ñu ñu jàpp am ñoo xam ne wax nañu dégg nañu ay wax te yooyu baaxul ci Sénégal mën na indi ay ay jafe-jafe ci fi ñu toll nii baaxul ci surtout fii sax yàlla nag réglé woon na yëf yi wa ida jaahum amrun min al amni aw al xawfi azaau bihi walaw radduuhu ila rasuli wa ulil amri minhum la alimahu alladina yastambituunahu minhum yàlla waxoon na ko bu jëkk mm-hmm. ne bu fekkee dara dafa ñëw ànd akum tiit ànd ak ragal muy muy li am nii tey nga gis ñu commencé di mel mel di wax mu ni su fekkoonte nag dañoo delloo la jox ko yonent bi maanaam dellu ci njàngalem yonent bi mais delloo ko ci ñi nga xam ne ñooy spécialiste nga xam ne ñoo xam ñu mel ni docteur waaye ñi nga xam ne ñoo xam ci wàllu diine ñu jox leen ko ñooñu toog càmbar ko dañu génne solution defe naa foofu la problème bi nekk kon fi mu ne li mu laaj mooy waxtaan waxtaan la laaj ci ni ñu delluwaat ci ñi nga xam ne nag ñoom yàlla jox na leen baat ci réew mi lu mel ni xalifa yi président wala ministre leen di yoo xam ku yoo xam ne mooy taxawee loolu waxtaan ak ñoom ndax it bu ñu fàtte ni association yi nga xam ne ñoo fi nekk ay association imaam yu demee noonu dëgg la ay jàmbaar lañ borom bi xam-xam ñoo ci nekk mais imaam ya ca nekk ñoom tamit dañoo wénku ci yeneen i kër sëriñ voilà te ku ci da ngay waxtaan ak sa sëriñ bu ñu waxtaanee dellu ca base ba ni ko eh, ñi fi jiitu daan defee defe naa solution dana am ndax islam moom yàgg naa jiital li nga xam ni mooy intérêt nit ki dafa am benn qaida charia buy dox ci ci l'islam dañuy wax ni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih maanaam fexe ba nit ki nga fegal ko lu koy gaañ mm-hmm. moom la ñu jiital ci indil ko intérêt sécurité nit ki déjà voilà sécurité nit ki moo xam ci wàllu santé la wala leneen bu taxawee rek loolu la ñuy jox priorité mm-hmm. kon tey sécurité nit ki moo taxaw moo taxaw te ci jamono yonte bi alayhi salaatu wasalaam rek daa Omar ibnu Xattaab moo koy nettali nee na fekkee na yonent bi alayhi salaatu salaam mu génne ay nit ndax lan ci jàkka ji ndax lan seen gémmiñ moo doon xeeñ laaj ak soble mm-hmm. laaj ak soble mooy leen yéen ngi xatal jàkka ji ci xet yi kon génn leen waaye segam laaj soble moom ñuy génne kon naka ki nga xam dafa am feebar comme mm-hmm. xamuñu kan moo ko am nag mm-hmm. léegi nag ñi dem mooy jël suñuy matuwaay matuwaay yi mooy bu ñu mënoon di segg baax na waaye comme mënuñoo segg nag ñu waxtaan ak nit ñi su ko defee julli yooyu su fekkee écart mën na am mètre mètre comme ni ñu ko defee baax na su mënta am nag defe naa ni ku ci nekk war ngaa mën a jullee sa kër te loolu yonent bi àdduna ci àdduna ci nee ki nga xam da daan dem jàkka di fa jullee yàlla def feebar tax dematul wala tukki nee na tuyaaba jamu daan am ca dem jàkka ba leeba tey leel moom lay am mm-hmm. kon ki demul tey xaj na feebarul waaye mu ngi daw feebar mm-hmm. yonent bi waxaat alayhi salaatu wasalaam ni xam naa ñu baal ma sax ci kàddu gi ni ma koy waxe na nga daw ngaana gaana xam nañ ko mu ni dee ko daw ni ngay dawee gaynde ah waaw gaana feebar la mm. boo koy daw ni ngay dawee gaynde kon beneen feebar boo xam ne mën na faagaagal nit vraiment daw ko jaadu na mais lii problème bi rek mm-hmm. mooy waxtaan mm-hmm. jaar ko fi ñu ko war a jaar defe naa loolu bu amee Sénégal yëpp Sénégal yëpp li ñu bëgg mooy Sénégal am jàmm voilà jërëjëf d'accord euh, jërëjëf euh, docteur Ousmane ñaan ak Barka Diop Sarr euh, nee na wàllu protection personnel soignant bi yéen ñi nga xamante ne xëy na yéenay nekk tampon ci diggante bi wax na aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi ndax mm, bàyyi ngeen ci xel ci seen wàllu wér gu yaram yéen ndax xam nañu ne fële ci bitim réew bare na fa lool macha allah ay agent de santé yoo xamante ne ñi loxu nañ ci sax dem ba ñàkk ci seen i bakkan leneen li mooy nee wax na ba xaw a mel ni daal dafa bëgg expliqué que nguur gi yenn saa yi xëy yi muy jox euh, dafa mel ni day dafa am lu ñuy làq di génne par tuuti tuuti <laughs> ci xalaat. <laughs> waaw euh, <laughs> loolu dafa may permettre d' abord. delloo jukkal personnel santé. muy médecin bi muy infirmier bi muy sage-femme bi muy euh, balayeur bi mm-hmm. brancardier bi. ba ci ñi nekk au niveau stratégique parce que euh, tey jii xam ngeen ni bu jàngoro amee rek ñoom ñoo nekk au devant. Mm-hmm. ñoom ñoo nekk au devant te dañuy dem ba jeex comme nii ñu nuñ koy waxee. dem ba jeex donc amul benn barrière nga jox leen protection bañ leen jox protection. dañuy liggéey waaw conscience professionnelle day tax mais doo xalaat yooyu. Mm-hmm. voilà donc ñooñu c'est c'est des euh, gens à féliciter à encourager. Mm-hmm. waaw moo tax ma leen di delloo vraiment jukkal. voilà di lu nu ñu taxawee xaaruñu équipement ñëw équipement daf leen fekk si waaw équipement daf leen fekk si parce que tout est début dañuy wax boobu équipement demagul sax nit ñu taxawoon nañu commencé woon defar centre yi nit ñu commencé di former wu di taw ba léegi équipement bi ñëw certes équipement du mas a doy muy tey Chine États-Unis France Italie gis nañu italien bi ñuy génn fii di wax bay jooy mm-hmm. waaw équipement moom du doy. sur le plan mondial il y a une tension aujourd'hui ci problème équipement. mais alhamdulilah parce que ñëpp soxlaandoo parce que ñëpp soxlaandoo et li ñu soxla même chose la ñu soxla. donc day insuffisant mais alhamdulilah pour le moment vraiment amaguñu benn rupture amaguñu benn tension. Mhm. waaw équipement yi ñu ngi leen di acheminer au niveau des centres d'intérêt mooy maanaam fu ñuy jëlee en charge ñenn ñi. et mënuñu jox ñëpp EPI. comme nit ñi ni ñu ko xalaatee nga dem hôpital tey hôpital boo dem rek nga fekk ñëw sol tenue yooyu. mënul nekk mënul nekk mais aussi dañuy naan suñu personnel su ngeen fu ngeen nekk da ngeen protéger wu. <laughs> waaw parce que yéen da di accueillir da ngeen di accueillir donc gant loo xam ne bi ñuy jàng dañ ñu ko jàngal. da nga ko war a sol waaw masque da ko war a sol. <laughs> waaw loolu boo ko defee ah di boole. hygiène individuelle bi maanaam ay raxas ak yooyu yooyu boo ko defee yàlla mën na laa suturaal ci loolu euh, ci euh, euh, contamination waaw mais deuxièmement aussi ñan ñooñu ku leen mën a dimbali mooy population bi personnel santé boobu population moo leen mën a aar ñoom ñu ngi faj population bi mais population moo leen mën a aar lu leen mën a aar moom mooy maanaam aujourd'hui képp koo xam ne jógee na bitim réew surtout réew yu am jàngoro bi <laughs> dugg population mën laa signaler ne déw wala ne la yow il faut nga oote cellule alerte euh, ministère la warut a dem warut a génn kër gi non bul génn kër bi moo baaxul euh, waaw euh, confiner sa bopp nga auto isolé nga oote soo ootee nit ñi dinañ la wax nan nga war a def bu fekkee dañ lay jël si si la bu fekkee dañuy war a def prélèvement def la bu fekkee loolu yëpp amu ci ñu ne la bon continuer sa li nii ngay def mhm. defe naa loolu il faudrait que population bi aider eh, eh, eh, personnel santé aider aussi seen concitoyens yi mhm. waaw loolu moo am solo loolu bu bu bu fekkee mesure yooyu nit ñi jël nañ ko vraiment on n'aura pas vraiment assez de problème loolu je pense que c'est important lu jëm ci chiffres yi. Euh, xëy na mooy buy def ay euh, comparaison ak la xew ay période guerre ak yooyu c'est pas pareil li feebar feebar toll nañ ci foo xam ne dañ naan communication de crise mhm. buñ tolloo ci communication de crise amoo dara loo nëpp au contraire. lépp ngay génne lépp ngay génnee pour nit ñi mën a aar seen bopp. parce que boo nëbbee rek nit ñi soofantal feebar. waaw buñ ko soofantelee rek mu gaañ leen. Mhm. donc ñun amuñu intérêt tey. nëbb bu ñu amoon tey cent cas ñaanu ko yàlla dañuy taxaw ne sénégale yi ah cent cas lañ am. ñu mën a xam ampleur wala dayoo. mi ngi dem di eh, eh, avancé waaw bu ñu amee benn cas dañuy taxaw ne nii ñi benn cas lañu am. donc il faudrait que sénégalais yi am confiance ci seen autorités yi surtout chiffres yi ñuy joxe. Mhm. chiffres yi ñuy joxe loolu la. boo gisee tey jii communication bi xaw a changé ak. Euh, euh, euh, depuis quelques jours kii ak personnel médic kii journaliste yi. waaw c'est normal ñoom tam comprend nañ defe naa journaliste yi sax comprendre nañu. Mhm. parce que dajaloo mbooloo xam nga mënoo toog nga ne tey damay joxe une mesure. ne nit ñi bu leen rassembler mhm. ba pare yow. ngay dajale ay nit ngay dajale ay nit. donc ni ku lay suivre lan lay wax donc loolu benn la. Mhm. deuxièmement lu jëmoon ci nëbb. quartier nit ki wala ak yooyu euh, fu mu jógee zone yi parce que dañuy bañ stigmatisation joxoñ baaraam waaw joxoñ baaraam voilà joxoñ baaraam te loolu ñun suñu askan xamu Sénégalais yi xamuñu loolu dem nañu ba gis ni loolu ma nga bëgg am suñu commencé woon na commencé woon ñu ne ah quartier tel waaw nañ taxaw nañ taxaw bu ñu ko defee rek di nga commencé dinañ commencé beddi ay nit te loolu jekkul te lii du feebar boo xam ne feebaru gàcce la du feebaru gàcce mm-hmm. Mm-hmm. feebar la comme feebar yëpp donc amuñu liñ ci eh, nëbb bu ko nit ki amee ñu faj ko mu wér jeex na mënatul wàll kenn waa donc par conséquent kooku waruñ ko daw mm-hmm. loolu moo tax nit ñi changer seen stratégie de communication et loolu defe naa askan war na ko comprendre journalistes yi comprendre ko xam ne tey jii ñun mënuñ def dara sans les médias waaw parce que ñu ngi def ay ay ay nu mu tuddee ay sensibilisation de proximité def ay visite à domicile ak yooyu mais aussi tey jii Sud FM ñi ñuy déglu fu ne. Mhm. waaw donc kaddu yi ñu fiy jaarale. vraiment day dem fu sori day dem fu donc journaliste yooyu mënuñ leen beddi mënuñ leen écarter. Mhm. waaw mais il faudrait que ñu comprendre ne situation bi noonu la demee. moo tax ñi eh, xalaatee ko euh, euh, noonu. d'accord Euh, sécurité euh, ñi nekk ci wàllu secteur santé ak taskatu xibaar yi waaye aussi sécurité euh, ñi ne ci wàllu diine ji ndax yéen itam da ngeen di faral di dalal ay nit. Mm-hmm. moo xam ci ay daayira la wala ay ziar. Mm-hmm. jamono yële déggoon nañu kenn sax ku ne woon bu kenn ziareet yi. ci gox ba mu nekk. Mm-hmm. est-ce que jël ngeen conscience ci risques yi ngeen nekk yéen itam. bu baax a baax jël nañ ci conscience bu baax ndax it ni ma ko waxee ci njëlbeen ñun tamit dañoo war a dugal suñu loxo ci mbir mi. moo tax sensibilisation boobu desuñ ci gannaaw par téléphone wala ni ku ni ku jékki-jékki ñëw ba biig rek am naa ci ay ay ay waaye ba tey ci suba rek ndax ma julee par def sama mar koo xam ne ko si mu foq mbaax na mi ndeysaan daw wut si ma ma ni ko asalaamaaleykum mu nga ah wax nga dëgg sëñ Kounta salaam ma ni ko waaw ah, kay foofu la ñu toll léegi ma ni ko dëgg la joxante bi loxo joxante loxo bi sunna la te baax na trop yoon tamit buggoon na ko tuyaa bale jiit waaye tey bu mbir ñëwee ba gàllankoor nga bañ koo joxit doo doo ci am bàkkaar da nga ci am tuyaaba moo tax it dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne yàlla boole nañoo ak ñoom suñu njabootu bopp ak ñi nga xamante ni dañuy seq ak ñoom li nga xam ne moo dox suñu diggante mm-hmm. muy daayira yi ni nga ko waxee muy association yi nga xam ne ci wàllu diine dañuy yëngatu ak yu mel nii fi mu ne nii ñu bari ñu ngi déglu mm-hmm. ci diggante ndakaarook bitim réew ñoo xam ne yëg nañu émission bi mm-hmm. te it dañuy dañuy bàyyi xel li nga xam ne ñu ngi leen koy wax que ni islam moo santaane ni su lu mel ni xewee lépp loo xam ne danga ko daan def di ci am tuyaaba soo ko deful doo ci am bàkkaar au mm-hmm. contraire tuyaaba nga ci am ndax ndax lu tax ndax da fegal ay nit loo xam ne waroon na leen a dal ci ay musiba nga nga nga fegal ko ndax xam nga ndey xar yi gis nga yàlla soxorul yàlla dafa baax te boo xoolee li muy xaraamal yëpp yëpp boo jàngee lislaam ah ba zedd yàlla li mu araamal yëpp génnul juróomi yëf yi te lépp intérêt doomu aadama la mm-hmm. mooy bakkanam mooy askanam mooy alalam mooy honneuram mooy diineem juróom yi li arab yëpp ci lay ci lay ci lay ci lay wëndeelu bakken moo tax mu ne bu bu kenn rey bakken boo reyee benn bakken te tey ko mel na ni faagaagal nga àdduna bi yëpp noonu la ko alxuraan waxee nga bi ci des muy askan moo tax mu ni bul ndax boo njaaloo rax nga famille famille keneen alal mu ni bul jël alal yi jàmbur ba araamal ribaag sàcc ak yu demee noonu irdu muy honneur mu ni bul xas nit bu bul teg ci deram lu mu loo xam ne diine tamit mu sàmm ko kenn warul faagaagal diine yi jàmbur kon lii tamit ñu waxaat ko parce que ñu bari dañu dañuy naan dañu tere julli dañu tere li man defe naa ni tere wu ñu julli état mënu tere julli te defe xalaatu ko sax waaye nag organisation fi lañ ko fekk organisation mooy lan mooy mbir xew na nañu delluwaat ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi état tey mooy kilifa ci wàllu santé wàllu sécurité wàllu nangam. kon am na kàddu gu mu joxe kàddu googu nag ñu méngale ak li nga xam ne moom la kilifa diine yi wax kilifa diine yi li ñu wax du génn gi ndax wax naa la ko sànq nee naa la yàlla nee woon na su mbir yu mel nii amee li ñu topp di wax nañu ko delloo yonent bi muy njàngaleem yonent bi mm-hmm. waaye delloo ko ñi nga xam ne ñooy borom ñooy spécialiste yi. ñaar ñooñu rek ñu lijjanti ko bu ñu ko seqee rek mu lijjanti mm-hmm. loolu loolu loolu mooy mooy mooy mooy li nga xam ne mooy dunduk doomu aadama. d'accord mm-hmm. jërëjëf euh, Cheikh bu Mouhamed Kounta Mor Niang la ñuy àndal balaa ñu ubbiwaat antenne bi euh, docteur Ousmane. Euh, Mor Niang moom dafa jàpp ne dëgër bopp Sénégalais yi moom lu yéeme <laughs> <laughs> ci wàllu sàmmante ak li ñu leen di wax ak seen intérêt itam. waaw xam nga euh, ñun toll nañu foo xam ne. Mhm. du ñu qualifier nit ñi. Mhm. ñu qualifier nit mais li ñu mën a def rek mooy mhm. ñaax leen. bu fekkee dëgër bopp la wala ñàkk xam la. ñu xamal leen def naa loolu moo am solo. mais euh, bokk na ci liy euh, gaañ nit. bokk na ci liy gaañ nit xamuloo te nangoo ñu xamal la. loolu bokk na ci li gaañ waa defe naa loolu war nañ ko mën a moytu et tey ñun tey jii dañu am une population jeune dama koy wax dañu am une population jeune te ci yooyu lañ yaakaar te ñooñu lañ yaakaar vraiment ñooñu ñoo war a mën a dimbali nit ñi ñoo war a mën a dimbali nii ñi loolu moo tax ñuy lancer appel a toutes les associations euh, nga gis euh, vraiment Ndeye Khady engouement bu am autour de cette affaire man ça me fait plaisir ça me fait plaisir daf may réconforter waaw dama kontaan suma euh, euh, réew parce que dama gis euh, ASC yi yëpp mouvement nawetaan ñëpp ñëw ne bëgg nañ ànd ak yéen bëgg nañ leen jàppale parce que tey ñun suñu kàddu àgg na foo xam ne xëy na yéen seen poste fa àgg ñu dugg ci sensibilisation loolu dañ koy rafetlu nga gis tey ji ay ñaar da ñaar ñetti nit yi dajaloo indi don pour lan pour population. croix rouge itam waa ñëpp ñëpp ngi ci. donc vraiment engouement boobu defe naa xëy na dëgër bopp xëy na amoon na mais amatul. Mhm. waaw nit ñi comprendre nañu xam nañ ni vraiment tey jii seen rôle mooy lan mooy ku nga doon sa soldat euh, nga doon soldat. Mhm. songu virus bi parce que président wax na ko ministre de la wax na ko ci guerre lañ ne. Mhm. guerre contre un soldat invisible. ku nekk am ci responsabilité dafa jafe donc ñun ñëpp nañ nekk soldat. nañ nekk soldat ñu songu virus bi. te loolu nan lañ ko mën a defee mooy respect yi ma doon wax depuis le départ. man je bien toujours su sax les les directives du président de la république. c'est c'est d'excellentes directives yoo xam ne mën na tax ñu confiner mën a circonscrire le virus mais les mesures individuelles et collectives et sanitaires loolu c'est important mesures euh, hygiène yooyu mm. bu ñu ko defee vraiment dinañ am jàmm euh, Sénégalais bu dëgër bopp nga jéem a nga jëm ko sensibiliser ba dëgër boobu boobu day raisonné ko waaw voilà raisonné ko. waxtaan ak moom xamal ko lan mooy jàngoro bi ak lan mooy gravité jàngoro bi. waaw ak su ëllëg lan la la mën a jural. waaw loolu bu ko nit ki xamee rek dana moytu. je pense que c'est ça important moo tax ma ne. il faudrait que ñu continuer sensibilisation il faudrait ñu continuer di wax ak population bi. d'accord balaa ñu ubbi antenne bi wax na aussi ci dëkk àll yi ndax prévoir ngeen fa aussi dispositif. waaw xam nga euh, tey jii sama service euh, ministre daf ñu instruire moom ak ministre de la jeunesse. ñu lëkkaloo indil ñu euh, service qui service civique national. waa waaw service civique national cent cinquante volontaires. <laughs> lañu ñu tey biir SNEPS ñu ànd ak waa CEREPS. CEREPS bu Guédiawaye waaw ñu ànd ak ñoom formé leen ci message ñu war véhiculé au niveau des populations mais en même temps dëmb ministre dafa génnee benn lettre circulaire envoyé ko dans toutes les régions médicales sous couvert région yi ne leen li ñuy def Dakar ni nangeen ko dupliquer foofu maanaam volontaires nekk foofu ci diwaan yooyu mhm. ànd ak li ñuy wax euh, les éducateurs yi nekk biir euh, région médicale yi mooy euh, bureau régionaux yi de de d'éducation information pour la santé ak ñi nekk ci centre de santé district yi mhm. ñi ne leen def leen di Dakar def c'est-à-dire ngeen lëkkaloo ak CDEPS régionaux yi. lëkkaloo ak volontaires yi ak personnel santé def campagne de sensibilisation dem ci kër yi dem ci quartier yi waxtaan ak population mu bañ a nekk nag dajaloo. Mhm. waaw parce que loolu. dañu koy waaw il faut pas mu nekk groupe. waaw mais individuellement taxaw waxtaan ak population bi expliquer ko lan mooy feebar bi lan la war a comporter wu na benn place ak yooyu. ak xale yi ñoo xam ne dañ leen jox vacances ah vacance boo xam ni vacance euh, waaw feebar bee tax mu nekk vacance ñu bëgg a nekk ci mbedd bi voilà waruñoo toog ci mbedd bi mm-hmm. taalibe yi aussi ci lañ bokk mm-hmm. ci lañ bokk waaw ñi gën a waxtaan ak oustaz yi ñi téye xale yi ci daara yi ñi bañ a génn mm-hmm. waaw di di appliquer nag lavage des mais correct appliquer utilisation mouchoir ak yooyu je crois loolu tam ci lañ ne moo tax tey jii vraiment ñi ngi lëkkaloo ak ministère de la jeunesse pour euh, wasaare xibaar yi ci gox yi ak goxuwaana yi surtout au niveau des. Euh, euh, zone reculée. D'accord euh, ñu demaat ci ligne bi ci cinq 825 18 30 ñu xool ki ci nekk asalaamaaleykum. allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Ndeye Khady. Uh-huh, soxna si. soxna Khady Ndiaye. soxna Khady Ndiaye ñu ngi lay nuyoo soxna Khady. ñu ngi ngeen defar jàngoro ji. ah ñu ngi ci xeex bi. waaw yàlla baax na yàlla baax na. di wax fii fii contexte nit ñi tey gardam ba defe naa fii la amee solo. Mhm. fii nii ñu amee solo parce que bu fekkee dañoo wax ni contact mooy tax mu mu mu dal la. Mhm. kon boobu bu ñu moytoo contact yi rek. mu mu mu mun na am ñu mujj ci. ñu ci feebar bi. te bu ñuy wax tamit ñaani maam yi tamit nangu na. Mhm. amul am na ni ñaani maam yi nangu na. waaw tey imaginer bu feebar bi commencé woon fii nii ci Sénégal nga xam ni lépp li ñuy def li ñuy def yëpp moom la feebar bi di bañ. Mm-hmm. dajaloo <laughs> te loolu la feebar bi di bañ. Mm-hmm. te kon boog nañu sant yàlla rek. Mm-hmm. dolli ñaan yi. waxal sëñ bi Kunta mu jox ñu ay dog yoo xam ne dañ ci <laughs> waaw incha allah. d' accord <laughs> ok jërëjëf incha allah jërëjëf euh, soxna Khady Ndiaye 33 mm. ñu xool keneen ki ñëw ñu ngi ak docteur Ousmane Gueye ak euh, Mohamed euh, Cheikh bu Mohamed Kounta des cadres des religieux pour la santé le développement asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. sëriñ bi. maa ngi lay ziar. maa ngi fooy wootee. Dakar Moussa daa daa Diop. daa Diop. waaw. da daa fooy wootee. Dakar Dakar. Dakar ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi ñaan jàmm ci réew mi ak àdduna bi yëpp. allahumma amiin. Eh, soxna ci feebar bi yàlla mi fi indi yàlla nag fi yàlla jële amiin amiin. Eh, ñu ngi wax affaire julli yi. Mhm. gis nga man. ku mel na man mi sant Diop ak ñi sant Ndiaye bu ñu reeree ba suur julli geewe dañuy tëdd nelaw am na ñuy fanaana julli ba biir set mm. la leen di yàlla di wan nañ ko boole ak li docteur yi am yàlla jël musiba bi jël balaa bi génn ci àddina bi yëpp yàlla na ko yàlla def e, bi ci def bi ci bi ci def bu ñu focaliser encore ci affaire u julli li ñu focaliser nañu focaliser ci man bi ma gisee Macky Sall démb muy wax sama rongoñ dafa tuuru ndax xam naa ni démb Macky Sall su xamoon fan la mën a dem ba feebar fii génn senegal génn ci àdduna bi dana ko def te jaral na ko lu kon yàlla na ko yàlla jàppale jàppale réew mi hmm. yow tamit salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, Serigne Dath Diop dinañu ñëw léegi ci euh, contribution vingt 33 825 18 30 ñu xool ku ci topp ak Val d'Afrique asalaamaaleykum. waaw maaleykum soxna si. Serigne bi na nga def. na ngeen def na ngay tey. alhamdulilah fooy wootee. maa ngi wootee Zak Mbaaw Kër Mbaye Fall. Zak Mbaaw ñu ngi lay déglu Serigne bi. waaw man euh, dama dégg démb président Macky Sall. Mhm. di wax ne bu 20 heures jëm ci 7 matin. Mhm. la ñuy duñ gisati kenn ci mbedd mi. waaw. waaw léegi euh, gardien yi nga xam ne ñoo nekk ci biti moom mbaa sóoraale nañ leen. <laughs> d' waaw pour euh, bu gaay bi ceeb yoo xam nga bu fekkee da nga nekk gardien boo xam ne amoo papier. Mm-hmm. léegi bu la fekkee ci biti. mbaa léegi gars duñ la wax dara. d' accord léegi ñaareelu laaj bi. Uh-huh. léegi damay laajte gardien yi fanaan ci biti encore. Mm-hmm. léegi ñoom lan mooy seen euh, problème mu kii yooyu daal. nga laajal ma médecin bi ndax affaire yi euh, gars yi nu leen di aaree daal gardien yi fanaan ci biti. d'accord. parce que ñoom ñu ngi ci biti ñi leen di liggéeyaloo joxuñ leen sécurité joxuñ leen masque joxuñ leen dara. d'accord. ma doon laaj ba xam risque ban lañ ci mën a am daal risque ban lañ ci mën am. kontaan na ci yéen di kontaan ci docteur boobu ngay invité. jërëjëf. yal na ko yàlla fay xayalale yow Ndeye Khady barki Seydina Muhammad yal na ko fi yàlla jëlee ñi ko xam yal na yàlla saafara amin amin ñi ko amul yàlla buñ ko xam barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ euh, bi merci ñu ngi woon Zac Mbao léegi ci 33 825 18 30 ñu xool ko ci topp asalaamaaleykum waaleykum salaam euh, sëriñ bi na nga def maa ngi sant yàlla soxna Ndeye Khady waaw fooy wootee maa ngi wootee yëmbal Ibou Ngone yëmbal Ibou Ngone ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay soxna Ndeye Khady. alhamdulilah. Eh, di leen jaajëfal di rafetlu gan gi nga dalal muy docteur. waaw mi ngi lay fay. waaw ñu ngi teewlu émission bi boobu léegi. Mhm. Eh, wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu lool xanaa kañ ñu gën di sensibiliser nit ñi rek. Mhm. Eh, di sàmmonteeg li nga xamante ni kër docteur ñoo ko digle. Mhm. xam naa buñ ko wéyee rek daanaka dinañu muccal ci feebar bi mm-hmm. bu ko defee ñu ngi rafetlu émission bu baax di di leen jaajëfal di wax ni boobu léegi ñu ngi leen di déglu euh, di leen bàyyi xel ak taxawaay bi ngeen ci def tamit ñoo ngi fi ci félicité bu baax a baax jërëjëf di jaajëfal tamit waa kër docteur yëpp wax dëgg yàlla mm-hmm. di ñaan yàlla suñu boroom mu teggu ñu fi jàngoro ji ak lépp mu mënta nekk rek ci àddina bi amiin amiin di rafet rafetlu émission bu baax nag merci Euh, jërëjëf ñu ngi woon yëmbal ànd ak euh, Ibou Ngone Mbengue 33 825 18 30 asalaamaaleykum allo ñu may ko tuuti mu yegg si ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak euh, Sud FM ci seen émission allo docteur asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ah, émission allo docteur. waaw fooy wootee sëriñ bi. maa ngi wootee Thiès. Thiès bisimilah. waaw. Ah. monsieur Ndiaye la. monsieur Ndiaye ñi ngi lay dalal jàmm. na def waaye naka coono yi. sant yàlla alhamdulilah. ñoo ngi ziare sëñ bi Kunta. ok jërëjëf. di nuyuwaale maa ngi euh, ñaan euh, docteur si euh, volontaire yooyu mu wax waa service civique nationale yi. Mhm. parce que man je suis enseignant maa ngi ci àll bi. Mhm. mais temps yi parents yi dañ may woo naan ma yow ngeen jàngoon sax moom moo tane quoi. parce que xale yi nee na ñoo ngi fe ñoo ngi fees dell ci ci ci mbedd bi di foo quoi. d'accord loolu loolu laa amoon lu may wax même ñun fii ñu dëkk nii à Thiès da ngay gis xale yi mbedd bi comme c'est pas la peine. Mm-hmm. xale yi ci mbedd bi tout le temps tout le temps da ngay dàq dàq ba sonn duñ doon say doom ay doomu jàmbur mais tamit. loolu laa amoon euh, ci lu may yokk ci kii bi di rafetlu émission bi bu baax a baax. merci beaucoup monsieur Ndiaye yal na fi yàlla jëlee feebar bi waaye. ma amin yal na ko fi yàlla jëlee yal na ko fi yàlla jëlee mën na ko yal na ko def. allahumma amin euh, jërëjëf ñu jugee région bu Thiès seet kan la ñuy àndal ak ban destination la am ak suñu ñaari gan asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. docteur Ndeye euh, euh, la moo fi nekk rek. ak docteur Ndeye Khady. <laughs> ak sang bi Kunta. waaye ñu ngi lay fay. Mm, ziare ñëpp. Hmm. ngi lay delloo ziare. man la doomu Oustaz Alioune Sall Lat Mbengue. d' Lat Mbengue. Mm, maa ngi lay ñaari docteurs yi ak sëriñ bi. Mm, waaw di wax rek ki génn léegi li wax fa laa bëggoon ñëw maanaam comme ñàkk jàng bi. waaw. te teewal ku ne mu ngi dox sa activité léegi eh, loolu moom xam naa luñ ci gënoon a laaj bi rek dina gën. d' accord. Hmm, beneen tam li ma bëgg a laaj. mooy li nga xamante ne bii moom mooy eh, kooku sax sëriñ bi laay waxal laay waxal maanaam ndéem taw lañ mën a tere pour buy taw sax nga mën a toog sa kër jullee sa kër. Mhm. man jàpp naa ne eh, lii warul a tax ku ne di ci débat. Mhm. Hmm, loolu daa xam naa loolu dama xamoon nag waaye loolu daal moom wax dëgg yàlla sama xoolee daal. ñëpp respecté li état bi wax ndax fexe ni moo mën def ba xeex bi affaire bi jógee ko fi comme dajaloo moo koy yokk ñu bàyyi dajaloo yee mm. ba luy jàll. d'accord incha allah maa ngi saare ñëpp salaamaaleykum. ñu ngi delloo ziar waaleykum vingt 33 825 18 30 suñu amee kenn xam na euh, dañuy daal di euh, taxaw bu ñu amee kenn nii daal di taxaw bàyyi ñaari gan yi tontu asalaamaaleykum allo. allo Euh, ki ne ci ligne bi ñu ngi koy ñaan mu fay xajoom wala mu wàññi ko ndax ñu mën a déggante bu baax euh, seen jikkunte di muy docteur di sant ndey xadi man la Ousmane Sow Mbor Ousmane Sow laaj maanaam mooy force sécurité yi ne ci mbedd yi waaw di di jàpp nit ñi mbaa ñu leen di coppa ñoom daal di leen euh, bu ñu génn nag ñi nga xam ne ay sànni lañu est-ce que ñoom dañoo protéger benn feebar bi leen dal wala ak itam léeg la nga dégg ñu naan faj nañu ñu ñu naan euh, amuñu garab gu faj ku faj jàngoro ji di leen sant baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf euh, Ousmane Sow Mboro 33 825 18 30 su fekkee amul ku ñëw Alioune Badara Socé kon ñu jël asalaamaaleykum. maaleykum bi na nga def. Eh, fooy wootee. man maa ngi wootee Thiaroye. waaw ayca ñu ngi lay déglu. Ah, man de dama jaaxal mooy heure heure heure bi te aayee nit ñi quoi maanaam heure reer la de moom. Ndiaye nag yàlla bu ma dégg waaye heure reer la ñu toll ñu nga bëgg a génn reer mënuñoo reer yi. Ah, dina doy waar. ah. ma ni loolu de dina doy waar xam naa docteur Ousmane dina ak euh, Cheikh Bou dina nga trouver solution. <laughs> maanaam daal maanaam nga bàyyi la ma doog maanaam daal sama dama am tension daaw métti wax yàlla. am. station bu métti waay station. station xaw a daaneel daal. d'accord. waaw. jërëjëf. waaw merci beaucoup moom defe naa waxul ci corona bi tension bee ko gën a yitteel ku nekk ak li la soxal xam naa ni. 33 kon dañuy daal di taxaw soose Alioune Badara Socé su fekkee amul ku rëcc ñu daal di dem ci tontu bi soxna Khady Ndiaye. Euh, moo fi njëkkoon a dugg sànq ci deuxième liste bi euh, mu ne bi mu leen déggee yéen ñaar docteur Ousmane ak Cheikh Bou euh, li muy wax rek mooy li ñu daan wax bu njëkk que nit ñi tey garabam lu ndax mbasum tey mii wane na ko docteur. waaw loolu la loolu la wone parce que tey jii dafa wane solidarité nationale. mu wane ni sursaut national moo am. waaw ñëpp ñëpp ci jàpp. ñëpp ci jàpp amul benn fànn tey ji ci Sénégal ba ngay xool ne dugalul loxoom ci mbir mi euh, donc euh, et en plus de cela euh, fan yi ci gannaaw daan naa ko wax nee naa ne defe naa sëñ bi mën na ci wax dara mhm. mooy ñaan kese mënu dara ko sotti waaw faj kese mënu dara mhm. faaw ñu boole ñaari mhm. waaw faaw ñu boole ñaar ñi moo tax vraiment damay kontaan ci plateau waaw il faudrait que ñi allier li ñu xam ñun. Mhm. diine ñu boole ko ak. kër docteur kër docteur. te kër docteur defe naa jàpp ci waaw euh, suñ borom tam nangu na mbirum médecine. Mhm. waaw bu ñaar yooyu weesoo. Mhm. askan gi dugal ci loxo. waaw loolu dafa am solo. nee na contact sànq mu ngi koy wax nee na contact. nañu moytu contact. nañu moytu contact bi duñu duñu duñu rey. pour quelque temps la. ñu am jàmm. mu génn fekk jàmm ñu delluwaat jàmm nit ñu am jàmm. mais nag su fi génnee je pense que comportement yi ñu changé ni dañ ko war a waaw am na benn euh, oustaz keroog mooy dëgg de euh, joxe loxo macha allah imaam wax na ko fi léegi. waaw ah, macha allah yiw la ah. waaye asalaamaaleykum defe naa ci musulman. Mhm. amul lu ko gën. Mm-hmm. amul lu ko dàq aussi. waaw defe naa loolu war nañ ko mën a sàmm. Mhm. joxe loxo ñu wàññi. ñu wàññi ko ay accolade ak yooyu du suñu aada. du suñu aada waaw <laughs> nañ nañ def lu ñu moom. <laughs> waaw nañ def lu ñu moom danañu euh, sàmm. <laughs> danañu dimbali je crois que loolu moom. Mhm. vraiment tey jii euh, pas feebar bi rek. mais nit nit ay garabam loolu euh, tubaab wax na ko nit ku ñuul wax na ko yàgg na l'homme et le remède de mhm. je pense que aujourd'hui saa se précise. Mm-hmm. ça se précise donc euh, il faut que population bi ñu nekk benn euh, am solidarité boobu vraiment respecter mesures yi ñu leen wax na koo xam ni vraiment tu pense que tey jii bu ma toogee suma kër du ma wàññi dara su ma génnee du ma yokkal dara nga toog waaw defe naa c'est important il faudrait que nit ñi am conscience boobu waaw am conscience boobu am na ko doon wax sànq euh, problème gardien ak yooyu ñu ci biti waaw ñu ci biti mhm. mais gardien ci population générale la bokk waaw waaw li war Ousmane Gueye en tant que médecin mhm. moo ko war moom ci wàllu protection waaw ci wàllu protection dafa war a protéger wu mhm. waaw bu fekkee ñoom seen biir contrat société bi moo leen war a jël en charge na leen société bi jël en charge bu fekkee si biir contrat bi société bi war leen jël en ñoo war a jël seen bopp en charge jël boppam en charge je crois que tey jii bakkanam moo gën lépp lu mu war a def waaw. ñoom nekk nañ ci risque wala. wala dañ leen di delloo ci population générale bi non xam nga euh, euh, risque gardien nan nga bu fekkee gardien société la mu ngi place am. demul fenn amul contact ak kenn. Eh, risque bi c'est pas grave. Mhm. mais l'essentiel est bu fekkee war na am contact il se protège. ku ñëw na nekk au delà d'un mètre de lui mu wax ak moom. Mhm. na am maskam na am gant. je crois loolu. na loxoom di set waaw na loxoom di amul gant na am ndox ak saabu. man boo demee tey suma eh, eh, service ci bunt bi. Mhm. dañ fa def benn dispositif de lavage des mains. boo duggee ci biir am beneen dispositif bu fa nekk. waaw il faudrait que réflexe boobu. boobu ñëpp am ko. te même bu lii weesoo mooy li nga doon wax. ñu continuer ci loolu ñu continuer ci loolu il faut une fois pour toutes. waaw xam nga président de la commencé woon naa affaire clean cleaning day. cleaning loolu dafa war sax. ci dëkk dëkk dafa war a set. Mm. bu setee yenn jàngoro yi sax du dugg. ci dëkk voilà je crois que loolu il faudrait que Sénégalais yi ñu indiwaat ko. Mm-hmm. def ko seen euh, seen euh, kii seen mani. voilà waaw. Euh, daa Diop euh, Cheikh Bou euh, nee na démb bi mu déggee njiitu réew mi di wax dafa jooy. Mhm. mu jàpp ne sax waratuñu di focaliser wu maanaam waratuñu sax mhm. taxaw di wax ci wàllu julli gi ndax julli gi comme ni nga ko waxee sànq lislaam rek la woon na ko bu yàgg. Mhm. mais li mu wax mooy ñaan comme ni ko docteur Ousmane waxee sànq waa kër docteur def. ñaan itam def ndax loolu moom mooy mën a may tey bu ñu leen boolee ñoom ñaar conjugué leen ñu mën a gaaw a génnee Euh, coronavirus bi fii ci Sénégal. dëgg la euh, loolu mooy mooy li am ndax euh, àdduna moog lislaam ñoo ànd islam moom dafa ñëw ngir defar àdduna waaye defar àllaaxira moo tax yàlla bi muy wax it nee na wala tansa nasibaka mina dunya bi mu nee na nga jaamu yàlla waaye bul fàtte it sa wàll ci àdduna mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wax ni jullit buy dund ci àdduna dafay tabax àddunaam ba mel ni du fi jóge ba faw kër këral ci àdduna ba mel ni da nga dëkk faaw mais tabaxal sa àllaaxira ba mel ni suba nga fiy jógee gis nga équilibre boobu mooy mooy mooy tax nit nit ki mën a dund waa ji wax na sax ci taw bu daan taw nga xam daan nañ tere nit effectivement taw am na noddukat ba taxaw ci jàkka ja daal di noddu waaye bi bu ñëwee ba ci xay yàlla sala hayya yàlla sala mooy ñëw leen ci julli ëllëg mu ne hayya ala sala dañuy sallu fii buyutikum julli leen ci seen i kër <laughs> julli leen ci seen i kër dañ bu dee ci dëkk la noddukat bi loolu lay wax bu fekkee lu mel nii moo am mais bu dee ci àll ba la ne parce que dañu ne ci àll ba campagne war a nodd su boobaa danaan sallu fii rihaalikum maanaam julli leen ci seen i wàccuwaay fa ñu campé waaw yooyu yëpp dafay am dafay wane ni fa ñu dal voilà kon dafay wan ni lii problème la moo xam ne réglé nañ ko bu yàgg-yàgg mais ci wàllu ñaan gi loolu dëgg la gis nga bu ñu fàtte nag ni lii dara du ko réglé du dellu ci yàlla subhanahu wa taala su ñu ko defee rek mu rek ñëw dellu ci yàlla nag du jàggal rek toog yor sa kurus hmm. julli naa loolu ci la bokk mais dellu ci yàlla mooy setal sa digganteeg sa yàlla sa borom mais setal sa digganteeg say euh, say dëkkandoo maanaam ñi nga bokkal suuf si setal sa digganteeg sa bopp yow encore bu ñetti relation yooyu. te loolu yëpp dem na ci prise de conscience. bi ñu doon wax démb waaw dafa am. Mhm. gis nga yont yàlla noox bi nga xamante ni lu mel ni am na dëkkam métti lool dafa waxal nitam ñi daf leen yéen samay nit kaay leen ngeen jéggalu yàlla su ngeen ko jéggalu moom indi leen xéewal ba pare ne leen jox force seen diggante yàlla wax ak yonte bi alayhi salaatu wasalaam ni ko neel nit ñi fii ak yaa ngi ci seen biir duma leen buggal mais ne leen encore parce que yonte bi fi nekk ba faw nee leen encore fii ak ñu may jéggalu duma leen buggal yonte bi jo jóge na fi tey kon jéggalu moo fi des mais jéggalu tamit dafa am ay ay conditions. Hmm. dafa am ay conditions. mooy la ngay jéggalu dangay fas fas yéene dootoo ko def ca saa sa nga koy jéggalu ca nga koy bàyyee mm-hmm. ba pare nag jox sa bopp yàlla loolu boo boo ko defee yàlla jéggal ci ñaan gi it am na mbokk mu ko wax sànq ni nañu ñaan ah kay yàlla subhaanahu wa taala dafa bëgg bu luy amee nga fàttaliku ko delloo ko sa bopp tàllal ko sa loxo sa loxoy xol ni ko yàlla yow rek yaa man ci lii dara kon maa ngi lay ñaan mm-hmm. yonte bi alayhi salaam def na ko dafa toog Médine ñu ñëw ko ah gars yi de coalisé nañu te armée bu am doole lañ yor te ci kaw sa kaw lañ jëm si yàlla ni ko neel xasbuna allahu wa niamal wakil mu ne xasbuna allahu wa niamal wakil alquran ni fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsaskum suun wa tabaw ridwan allah ne bi ñu waxee xasbuna allahu wa niamal wakil yàlla ne ci laa leen dàqal loolu ñu ragaloon yow ma ca dàqal leen mais leen ay xéwal kon ñun tamit dañoo xasbunallahu wa ni'mal mais lan mooy xasbunallahu wa ni'mal wakil encore parce que du làmmiñ ñu rek moo koy wax voilà ñetti mbir la composé ñetti mbir yooyu suñu ko bàyyee xel rek yàlla indiwaat xéewal d'accord te li nga ci wax sànq ne njéggalu euh, te bañ cee delluwaat. te bañ cee jéggalu mu rejoindre bu ñu ko corrélé ak mesure yu ñu wax. li docteur wax sànq que bu ñu ko xasee changé changement comportement bi. ñu bañ delluwaat ci lu bon. li nga xamante ne moom mooy indi xeeti feebar yi. voilà xam nga des fois ak cet moo ko des fois damay wax ni wala yàgg naa koy wax. léeg-léeg yow boo civilisé set organisé ñu naan diw dafa tubaabee. mais léegi non da ngeen war a wax ni diw dafa jullite. Mm-hmm. parce que loolu yont bi moo ko santaane alquran santaane ko nit ki na set na set ci mbubbam ci dëkkuwaayam ci këram ci léppam ci xolam ci fa muy liggéey lépp man bu yàggu rek maa ngi jógee ci benn réew ci réewu naa naar yi mais da nga naan dox yor sa mouchoir def ci lingem mais doo am sa doo ko ñemee sànni ci suuf <laughs> tellement ndax set nga mu set faaw nga dox ba gis poubelle boo ko dem nga dem ko fii nag booy dox ci mbedd mi xoolal li ngay gis waa lii nu ñu koy defee nag bëgg na ñu tamit am bëgg ñu am li ñu am kon bu xasbunallaahu wa ni'mal wakiil boobu ci lay ñëwaat mm-hmm. il faut ñu ñu dellu ci mooy da ngay jël yàlla doyloo ko mooy xasbuna mooy turu moom ñu xasib yàlla ni boo ma doyloo rek ma féete la foo mënta teel mm-hmm. bi ci des mooy allahu ku ne xam na ni yàlla kay moo yëlif lépp mm-hmm. bi ci des mooy wakiil mooy da ngay wakiilu ci yàlla wakiilu nag ak wakk ak ak tawaakul bokkul yonte bi ñu ko ne lan mooy wakkilu mu ni kuy lu dëgg-dëgg dangay def ni picc ñu ni ko picc lu muy def mu ni picc du biddanti mais buy xëy ci tàggam biir ba dafa dara du ca ne mais buy dellu si day fees dell <laughs> kon da ngay jox sa bopp yàlla waaye di sabablu feebar bi ñëw na nañu dellu ci yàlla waaye li mu li nga xam ni moo koy propagé loolu ñu moytu ko. ñu ko sabab lu ci bu baax. Euh, docteur monsieur Ndiaye lañuy ñuy àndal mu di jàngalekat mm-hmm. euh, nee na. Euh, ci volontaires yi mu la dégg sànq nga ne dinañ leen déployer ci région yi bëgg na xam naa ne ñu intervenir ci xale yi ndax nee na waajur yu bare ñu ngi leen di woo di leen xamal ne sax euh, xëy na xale yi desoon te l'école ba mooy gën ni ñu nekkee nii rek ci mbedd mi mm-hmm. euh, sensibilisation bi itam xam naa su ngeen leen ci mënee jàppale ci xale yi fexe delluwaat ci biir kër yi toog fa xëy na waajur yi fexe nañu leen occupé ba comme dañuy moytu génn beeg mm-hmm. rassemblement bi mm-hmm. mu bañ a jaaxee si ñoom waaw xam nga moom laay wax noonu wane xam nga état mënta def lépp waaw waaw euh, il faudrait que ñun parents yi ñu jël suñu responsabilité xam ni njaboot gi yàllaa ñu ko dënk mhm. am nañu àq envers kii la cette famille la ñi mën a aar suñu doom yi parce que man tey jii bu ñu toogee état ne tëj naa école trois semaines mhm. te période boobu lu ñu fi commencé jàng ba léegi mosoo gis fu état tëjee trois semaines période bi déedéet donc nga war a toog nga ne ah lu tax. lu xew. Mm-hmm. lu xew pour lan état jékki-jékki. tëj xale yi école ne xale yi nañ toog seen kër. donc am na lu tax. lan moo tax mooy nii ñi li ñuy wax jàngoro bi ñuy wax nii. Mm-hmm. ah kon de jàngoro bi de am na doole. waaw buñ demee ba ñaan nit ñi toog leen kër ga. donc jàngoro gi buggul eh, mbooloo buggul taxawaalu. bëggul lii bëggul lii donc xaaral ma aar sama njaboot ma téye ko ci gën donc mhm. parents yi seen bopp en premier lii ñoom ñooy responsable par rapport à ça ñoo war a jël seen responsabilité téye xale yi mhm. parce que nit mënoo am njaboot nga naan mënul ma ko dara déedéet daw responsabilité mënal nga soo doom dara war téyel sa doom mu toog ci kër gi parce que nga mu jóge école nekk ci tale bi di football dajaloo mhm. mën na jël feebar te xam nga xale yi nee nañu ci feebar bi. waaw xale yi ñoo gën a mën a supporter feebar bi. <laughs> ndax la waaw. ah eh, xale la ñu am nañu système immunitaire. <laughs> bu dëgër bu dëgër. Mhm. mën nañ nekk porteur sain jëlee feebar bi ci tali bi indi ko ci kër di ko lawal rek. yow jox la ko yow muy borom kër gi yow nga jóg di dem daani sa doole pour ut eh, sa dépense nga wal ñenn yi nga daanu feebar ainsi de suite ainsi suite. Mhm. donc il faudrait que d' abord balaa ñuy wax eh, volontaire yooyu. ñun ñu nekk ci quartier bi ñu indiwaat suñu valeur traditionnelle yi ñu amoon nga xam ne bu ma nekkee ci quartier bi doomu Ousmane Gueye doomu Ndeye la. Mm-hmm. wax naa ca mën a wax war naa ci mën a wax. waaw waxuma nga dóor de. mais mën nga conscientiser parent bi. Mm-hmm. ne ko yow boo gisee ñi ne xale yi bu leen dem école feebar bi moo xew ci àdduna te mu ngi ci biir dëgg mm-hmm. te jamono yi mu toll nii. nekkatul ci ku ñuy jóge bitim réew di ko indi mais mu ngi ci biir askan bi ñu ngi circulé te bu circulé bu ñu ko téewul dina gaañ mhm. donc téye xale yi je crois que loolu c'est un rôle bu ñu mën a def après ak état soog ay ñëw ak appuyer voilà mais parents loolu war nañ ko mën a xam et defe naa dañu nekk ci réew jullit dañuy wax xam nga euh, ñun gëm nañu suñu borom mooy musulman chrétien gëm na euh, euh, yàlla aussi xam nga donc réew jullit la moi je dis jullit la ñu à cent pour cent nous tous parce que ku ne day julli ku ne ak la nga ni ngay jullee xam nga donc loolu dafa nekk ci bible nekk ci coran nga am responsabilité envers ta progéniture mhm. donc da nga war a mën a jël ñooñu jël sa responsabilité doxal ko ba mat sëkk mhm. je pense ça important il faudrait que parents yi tam ñi bàyyi ci xel ñi bàyyi xale yi mhm. ñi nekk ci télé bi bu ñu ko def nañ leen téye dugal leen ci biir kër gi yar leen foofu téye leen foofu je pense que loolu bu ñu ko defee dañu aar xale yi mais aar seen bopp aar seen quartier aar seen euh, euh, dëkk c'est ça qui est important d'accord defe naa yeneen ñaari laa ci jëm yëpp ci médical la euh, mm-hmm. mooy Ousmane saw Mbokho nee na ñiy génn ci biti di xam naa police bi lay wax mm-hmm. ndax ñooñu itam protégé nañu leen Euh, dégg na aussi ñu ne amagul jàngoro ji amagul euh, garab bu ñu ko mën a faje dafa bëggoon nga gën ko ko leexalal. waaw man euh, alkaati yi ma jot romb fan yii yëpp. <laughs> waaw gis naa leen ak masque ak gant. Mm. waaw jël nañ seen matuwaay ak keroog man dama amoon quelques masques sama oto. waaw may naa ci alkaati yu bare de de synapse ba yoonu. kii bi kastoor ba. kii ministère laa la santé bàyyi naa ñu bëri. waaw mais temps yi gis naa leen ak gant ak. ak masque donc je pense que autorité ministère de l'intérieur bàyyi nañ ci xel ñi ngi vraiment euh, protéger seen euh, alkaati yi nekk ci euh, tali bi parce que aussi ils ont un rôle très très important à jouer waaw mhm. te waaw am loolu moom dafa am solo parce que tey jii bu état demee ba am sañ-sañ di naan état d'urgence mhm. c'est parce que dafa am ñu fi nekk ñu ko mën a appliquer loolu am na fu mu ko mën a weer voilà donc ñooñu et il est plus que normal ñi protéger leen et je crois que aussi l'État est en train de les protéger waaw mm-hmm. loolu moom mu ñu sikk sàkk ci côté boobu lu jëm ci traitement bi euh, c'est vrai nee nañu amaguñu vaccin amaguñu euh, garab boo xam ne mën nañu wax ni lii mooy faj mm-hmm. euh, covid 19 mais covid 19 wax nañ ni c'est vrai amul amagul vaccin amul dara mais lu muy manifesté wu par symptôme symptôme yooyu la ñuy faj Mm-hmm. waaw mandarga yi daal la ñuy faj waaw yi parce que bu yaram bi tàngee. ñu jox la loo xam ne dina wàññi tàngaay yaram bi. Mm-hmm. booy sëqat ñu jox la loo xam ne dina arrêté sëqat si. Mm-hmm. ak yooyu ak yooyu noonu. donc loolu mooy traitement symptomatique. am na ñoo xam ni benn jour la yaram bi tàng après du donc ñooñu dañ leen di observer. bàyyi leen duñ leen jox benn traitement dañ leen di observer di jël seen constant tous les jours. di def seen i analyse bu négative bu amatul benn certificat ni libéral ni ñu bi coowal chloroquine bi nag docteur <laughs> waaw waaw gaa yi nee nañ chloroquine na coow lu bare na mais je crois que euh, scientifique moo ko wax moo def peut-être ay recherche waaw léegi la ca des mooy communauté scientifique bi euh, bu ci d'accord homologué ko amul problème mën nañ ci demaat mais bu fekkee homologué ko ah euh, parce que recherche moom dafa am yoon. bu muy jaar recherche dafa am yoon bu muy jaar ba am ay essai clinique mu mu concluant ñu soog a publier ne lii ak lii ak lii bu fekkee jaar na yoon boobu te gis nañu ay preuve am vraiment dama naa même Sénégal du ci am benn jafe-jafe. ñu daal fi mu ne nii lii faj lii mu jeex tàkk ñëpp moom la ñuy ñaan yàlla muy muy États-Unis muy Sénégal <laughs> muy chloroquine muy azithromycine muy leneen ak leneen waaw bu fekkee daal mën na faj te wóor na vraiment bien voilà d'accord <laughs> hypertension artérielle bu ko sonal waaw na na na na continuer dem euh, ci médecin mhm. di def consultation di def bilan mhm. da jël traitement normal waaw loolu euh, bokkul dara ak coronavirus Eh, eh, Covid 19 bi ak tension bokkuñ dara. Mhm. tension la amee mu ngi daan dem faj na continuer aajuwul muy changé ni mu daan def. loolu moo am solo parce que nit ki bu fekkee da nga amee tension da nga koy toppatoo. parce que tension mën na évoluer. suuf mu gaañ la donc bul àgg ci loolu nag am médecin mhm. eh, tension même médecin généraliste yi sax dañ koy toppatoo. voilà bu laajee dem ci spécialiste nañ ko yóbbu ci cardiologue yi. Mhm. ñuy xool nan lañ koy. suivre mais je crois que par rapport a ça bu fekkee am na traitement am daal. Mhm. na continuer jël traitement muy dem rendez-vous am régulièrement chez son médecin. d'accord mhm. euh, Cheikh Bou Mouhamed mhm. vice-président cadre religieux euh, santé développement kaawu euh, taalibe yi. parce que dégg nga ko léegi ci xale yi sax dañ leen wax ñu bër ñibbi seen i kër. donte ñu ci bari itam ñu ngi ci mbedd mi. Euh, mais taalibe yi moom xam nañ ni daanaka ñu ci bare mbedd mi mooy seen kër ak ñi nga xamante ne dañ seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ngi ci biiti di itam di yalwaan mm-hmm. ndax discuter ngeen ci kaawu ñooñu tey nu ngeen xalaat nu ñu mën a régler seen problème ci feebar bi waaw kaabu kaabu doy waar la wax dëgg yàlla ba tey ci suba rek maa ngi ci dajeeg ñoo xam ni wax dëgg yàlla dam naa lu yàgg leen gestu mu jaaxal ma lool tànk neen yéeg ni ñuy bëree ci mbedd meeg ni ñu yore seen i pot mm-hmm. loolu nag vraiment xam naa ni lu ñu war a waxtaane la bu dee ci sunu wàll en tant que ay nitu diine gis naa ni moom lislaam du cautionné benn yoon loolu loo xam ne maanaam taxawal di yelwaan ak yooyu islam li mu xam mooy set islam li mu xam mooy organisation kon loolu tamit defe naa état am na ci wàll ci nu muy réglé mbiru daara yi ndax yàgg nañ ko fee coow nag avant feebar bi mhm. bis bu ne waxoon nañ ko fi ne dañuy arrêté yelwaan geeg yëpp mhm. mais problème bi ñi yelwaan yëpp du ay daara du ay taalu bi rek bari na si ñoo dañ ci raaxaloo yor seeni pot mais boo ko toppatoo newuñ ci benn daara wala daara yi nekk turu daara la mais jóguñu pour jàngale loolu tamit defe naa dafa bokk ci état mu mu saytu loolu. <laughs> ñun bu dee ci sunu wàll liñ ci man ñi nga xam ni ñoom la ñu xam te ñu jëflante ak ñoom daara yi ñu yor moom du daara yoo xam ne yu yelwaan la ñu doon. <laughs> man mën naa la ci tuddal ay daara yoo xam ne ña fa nekk dañu internet di fay ñu ñu leen saytu bu baax a baax di leen saytu seen wàllu wér-gu-yaram ni dundee yëpp. nga xam ni wax dëgg yàlla dañuy tarbi alxuraan set wicc ñooñu ñooñu seeni seeni jur tamit ñoom la jarali ñuy joxe seen xaalis jur bi nga xam ni jaralu ko peut-être dafa bëgg a débarrasser wu ci xale bi rek comme ni nga xam ni la ki génn sànq wax ci xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd bi kooku problème wayjur yi la mm-hmm. parce que bu école tëjee wala ñu joxe congé ci école yi ñooñu bu ñu leen téye woon jàngal ci kër yi xajja dina tani mais tamit bu ñu fàttaliku nañu bu ñu fàtte ni Sénégal it surtout Ndakaaru dafa xaw a métti kër gi xat na xat boo xam ni léeg-léeg da ngay dugg ci kër seeram day taw ci naka nit ñi nañ fay dëkkee xam naa yooyu yëpp nekk na loo xam ni ay facteur la ci ñàkk ñàkk toogu xale yi mais tamit loolu yëpp defe naa santé moo ko gën surtout fi ñu toll nii sacrifice la laaj daal sacrifice la laaj docteur Ousmane euh, cible taalibe yeeg ñi ci mbedd mi <laughs> euh, taalibe yi souvent du ci bugg euh, xuus noonu parce que pourquoi mhm. moi di me dis que imam wax na ko léegi ñëpp duñu taalibe parce que moi je ne peux pas comprendre xale bu nekk ci mbedd six heures du matin ba minuit kooku ban heure lay jàng ak fan lay jàngee waaw aussi il faudrait que sénégalais ñi dimbali nit ñi ñu dimbali sénégalais yi dimbali état parce que bu état commencé jël mesure nga dëgg des voix discordantes waa non c'est pas normal dañuy xeex l'islam kan mooy xeex l'islam moi je ne souhaite pas avoir mon enfant ma jël kon muy taxawàllu ci mbedd bi oustaz bu koy def tam doomam du nekk ci tali bi il faudrait que ñi bàyyi doomu jàmbur yi ñuy teg ci télé bi naan ni dañ ñu ñu ko jox ah bon amuñu fu ñu leen dugal non bu nangu jël loo xam ne mënoo ko gérer moi je pense que c'est un problème de responsabilité waaw man doo ma jox dix enfants ne eh, jàngal leen eh, eh, laaj ma la dara yaa xam laa laa soxla nga jël ko te yow mënoo ko yor mm-hmm. mais après nga koy yelwaan loo c'est pas normal il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont c'est pas normal loolu dañu ko war a dàq ci réew mi te loolu ñëpp ci war a jàpp. Mm-hmm. waaw ñëpp ci war a jàpp ñi mu daj parce que xale yi nekk ci tali bi ñooñu duñu taalibe ñun ñëpp jaar jaar nañ ci daara. Mm-hmm. Eh, ñenn yi yelwaan nañu mais pas comme ça. Mm-hmm. pas comme ça te loolu dañ ko daan def pour forme d'éducation la woon rek. pour won la ne coono nii la. nii la waaw waaw donc voilà humilité war nga ci mën a génn. mais léegi c'est pas ça c'est un fonds de commerce. il faut que les choses <laughs> ñi koy wax mu leer c'est un fonds de commerce c'est ça du du leneen il faut que loolu ñu arrêté ko d'accord euh, ci mesures yi nga xamante ne li ñu desee ci waxtu bareetul daanaka fukki simili la ci mesures yi euh, njiitu réew mi doon wax diggante démb ak tey bokk na ci takk ay euh, gants ak masque bëggoon nañu xam ci mu gën a leer ci suñu xel kan moo wax a takk gants kan moo wax a takk masque ak ban waxtu ak ci ban endroit waaw xam nga bu ma ko jëlee ci masque d'abord bu fokkoon ñu ngi limité woon ci cas importé. waaw ma masque jaadu woon na ci personnel soignant. ñiy faj waaw ñiy faj. ak malade bi. waaw waaw bi pour mu bañ a wàll kii faj. kii faj pour mu protéger wu. Mhm. mais buñ demee ba mu law. Mhm. bu demee ba law laa en suma moment xamoo kan moo am kan moo amul mën nañoo tolérer ñu tàkk masque. Mhm. waaw. mën nañu tere kon man su ma mën naa di takk sama mën nga takk masque kenn du la ko tere parce que am nga am nga am nga euh, nga gant aussi gars yi koy sol mais xam nga nekk ci gant toute une journée mais nga amoon benn solution yu droit apoli moo ko gën a moo gën a yokk waaw parce que gant tam day créer humidité xam xam nga am na ñoo xam ne la latex bi dina am lu mu def seen yaram ak yooyu waaw donc nga am sa solution wala heure bu jot nga saabu ak ndox ah vraiment dina génne euh, jàngoro bi sa loxo. Mhm. defe bëggoon nit defee c'est bien parce que boo gisee souvent ñuy takk gant ñuy sol gant mooy ñu nekk hôpital les les les de santé. parce que heure bu ne ñu ngi manipuler par ci par là. Mhm. ñooñu war nañ mën a laal gant ji chauffeur heure bu ne mu ngi ci euh, volant bi ak yooyu. Mhm. am nga sécrétion yi mun nañ nekk foofu ñu ñu ngi takk gant mun nañ ko comprendre à la limite mais la population générale heure bu ne yaa ngi <laughs> takk gant. vraiment. nga amoon sa solution hydroalcoolique moo gën mais masque moom. tey jii kenn mënoon wax kenn bul tàkk masque. mais xeeti masque yi ñuy gis a ak gel yi tam bare nañ ci naa ne autorités yi wax nañ ko. Uh-huh. Ah, il faudrait que ñu veille ci qualité gel yi gel boo ko jëndee fa nga ko war a jëndee. waaw doo am problème. parce que gel waaye gel ñu ngi koy jaay pharmacie. Uh-huh. Ah, ñu ngi koy jaay ci yenn grossistes yi. grande ah, surface yi grande surface yi am nañu ay gel yu baax Val d'Afrique moo leen di. seen sponsor moo leen di sponsor moo moo moo leen di fournir. Mhm. donc nit ñi nañu xool eh, gel yooyu parce que xam nga. ñi eh, ci mbedd mi daal xam naa ni réew mi moo noonu léeg-léeg nga gis noo xam ne eh, dañuy profiter ci situation rek indil la loo xam ne vraiment. mën na la jural jàngoro je pense que aussi c' est l' inconscience et c' est pas normal. il mhm. faudrait que ñi jaay produit de qualité. te produit de qualité yi am na ci grande surface yi am na ci magasin grossiste yi am na ci pharmacie. <laughs> waaw loolu gel yooyu nit ñi mën nañ koo utiliser waaw te ministère du commerce homologué na prix yi <laughs> xam nañu prix fu mu toll donc kenn amul droit yokk prix waaw boo gisee ku yokk prix demal signaler ko d'accord ñu def li ci wax euh, njiitu réew mi démb dafa axtu docteur Ousmane euh, wax ne ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo balaa mu ñuy ëpp loxo parce que suñu ëppee loxo comme ni ñu gisee ci réew yi yeneen yi ñu ëpp doole sax. gis mhm. nañ ñu seen système de santé dafa débordé carrément. Euh, da ngay gis yenn saa yi ñu ñu teg ci couloir yeeg jaxasoo ba daal metti na fi ñu mhm. toll mhm. nii. Euh, ñun xëy na suñu réew ci suñu wàllu plateau yeggaguñu foofu euh, tey débordement système de santé lan lay doon impactam ci yeneen pathologie wala aussi yeneen priorité de santé yi nga xamante ni ñi ngi fii ci Sénégal. Euh, te euh, yéen mu nekk tamit loo xamante ne lu leen yitteel la ndax éducation santé la ñu wax sànq dégg nañ fi ko wax wàllu hypertension artérielle yooyu yëpp di ay maladies chroniques yoo xamante ni ñu ngi fi ak wàllu santé de la reproduction yooyu yëpp tey su ñu seetaanee ba ñu dem ci débordement boobu alors que yeneen priorité itam ñi ngi ñi ngi ñi ngi xaar euh, tey yéen ban yoon ngeen xalaat ni xëy na peut su ñu ca awee yooyu yëpp duñ ca yegg te incha allah ku ci nekk ak sa priorité dinañ la mën a jël en charge voilà eh, jërëjëf Ndeye Khady xam eh, dañuy ñaan yàlla rek bañ a àgg. bañ que gis nañu réew yi ñu ëpp doole. Mm-hmm. bi ñuy sàgganee mbir mi. fu mu ne mm-hmm. parce que bu eh, kër docteur demee ba naan dañ may tànn. waaw entre malade kii lay faj ma bàyyi kii. musiba am na musiba am na waaw musiba am na ñaanuñu yàlla àgg foofu. Mm-hmm. bañ fa àgg nag amul mille solution respect directive. kese amul leneen. nañ respecté li état bi teg comme directive nañ respecte li ministère de la santé wax comme mesure waaw loolu bu ñu ko defee vraiment duñu àgg ci situation yooyu duñu àgg ci situation sénégalais yi walla étranger boo xam ne dañoo tëj frontière aérienne yow mënoo ñëw nga bañ a def détour parce que maa ngi dégg ne am na ñoo xam ne léegi dañuy def détour détour waaw jaar beneen dëkk après soogay dugg ci dëkk boo duggee encore nga laq créer beneen problème c'est pas bien déedéet c'est pas bien ak la amoon ak la et puis euh, bon à la entre guillemets nañ ma excuser acte de criminel la uh-huh. waaw c'est pas bien uh-huh. c'est pas bien loolu gis ni loolu yooyu yëpp bu ñu ko bàyyee mm-hmm. defuñu ko waaw ah kuy ñemeeku feebar bi sa yaram nga xalaat ne loolu nga amee nga toog sa kër nga oote mm-hmm. hmm? ñu respecter les directives là respecter mesures day incha allah duñu àgg ci. parce que euh, situation comportement patient bu njëkk bi je crois que c'est c'était salutaire c'est très déterminant waaw kooku comportement vraiment. Mm. c'est déterminant euh, génnul këram woote na ñu wax ko li ñu ko wax. wàllul jabar ji wàllul doom exactement mm. parce que ci moom la. ñëw na nem xam ni lii war na maa mën a dal. Mm-hmm. xëy na loolu la. xelam jot mu toog isolé boppam. waaw oote. oote ñu gidee ko. waaw ñu gidee ko boo xam ne lii la ñu faj ko mu wér dem yoonam. Mhm. jàmm ne ñooy mu delluwaat si limam mhm. su ñëpp doon am man mi jógee fële ñëw dem xam ni xëy na lii war naa ko am ma dem sama kër njaboot africaine am ni ñu toll waxtaan dem ziar fii communauté bi la war a moytu mhm. ñu bàyyi loolu bi ñu ko bàyyee respecté mesures yi rassemblement ñi bàyyi ko ñu bàyyi rassemblement ngénte yeeg takk yeeg yooyu ah vraiment nañu ko bàyyi daayira yeeg yooyu yëpp parce que ngénte imaam bu ñëwee jooyatu doy na sëkk ak barke. lañ fay defati leneen. déedéet ah, bu ñëwee ñaan sele e, e, kii amatul leneen du ñu fay defati. Mhm. waaw bu fekkoon condition yële temps yële la mën nañ ko la moo tax ma naan ah, situation nouvelle comportement nouveau. waa loolu la nit ki loolu la war a def nit day adapté wu. Mhm. day adapté wu situation bi moo ko laaj nañ adapté wu noonu. bu fekkee loolu mooy salut Sénégal nañu continuer noonu. il faut ñu defaraat suñu toogaay c'est c'est important euh, askan day discipliné wu askan day am règle. ne ñoom nii lay doxale mhm. waaw ñëpp ànd ñëpp ànd ci. voilà je pense que loolu bu ñu ko defee rek vraiment duñu am problème mais amul mille solution amul mille chemins chemin bu gën a mën a dimbali nit ñi aar nit ñi mooy respect bu ma la doon wax parce que bu euh, euh, kër docteur demee bañ naan. Euh, malade alaay faj bee ma bàyyi ko bàyyi ko fee ça pose problème waaw yàlla bu ñu fa waaw bu ñu fay naan incha allah. Euh, débordement système bi euh, Cheikh Bou yéen cadre religieux ngeen waaye da ngeen di liggéey lu bare bare. Mhm. ci wàllu wérgu yaram. Mhm. ci yeneen priorité santé yi wax nañ ko sànq. ñaanuñu yegg fa waaye gis nañ ko ci dëkku tubaab yi. Mhm. tànn la comme ni mu ko waxee léegi bii la ñuy faj bàyyi bii ndax mënatuñu ko. seen doole attanatu ko. tey lan ngeen di. am comme observation wala taxaw seetlu bu jëm ci euh, priorité yi fi nekk fii ci wàllu ci dëkk bi moo xam santé de la reproduction la moo xam euh, wàllu maladie chronique yi ni nga ko waxee sànq. Mm-hmm. Euh, ngir nit ñi ñu bañ faa yegg. Mm-hmm. ba daal paj mi gën a mën a yomb ci askan wi yëpp. lu am solo la ndax it ni nga ko waxee léegi suñu kuréel gi di cadre de religieu pour la santé et le développement yàgg nañu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu wér-gu-yaramu woy jur yu jigéen ñi ak xale yi loolu nag tey loolu tamit dafa am dafa am relation lool ak liy xew tey surtout ku ne xam na ni xale dafa dafa yomb euh, jël feebar. te ku ne dafa te ku ne xam na ni yaay muy jigéen ci boppam tamit vraiment moom tamit ku ñu war a protéger la. <laughs> moo tax it euh, cadre bi di kon moom tamit nañ jóg sensibiliser. sensibilisation bi nag defe naa ni mën nañ ko ci moment bi ñu toll war nañ ko mën a accès ci li muy bëgg a wax. mooy boo xoolee jamono ji tey lëmbee na lëmbee joo xam ne coow li bari na réseaux sociaux yi lu nekk ngi wax boo xoolee fan yi ñu ngi naan ko ubbi kaamil bi di nga ci fekk kawar yont bi sallallahu alayhi ñëpp daw songi kaamil bi <laughs> fekk fa kawar da ngay jël dugal ci kaas naan xamoo looy naan mm-hmm. gis nga yooyu yëpp di ay te fekk alquran yooyu yëpp joxe ne solution ne woon na bu ngeen diggee xabaar mm-hmm. na ngeen seetlu xabaar bi ndax am na walla déet te yont bi alayhi salaatu du feeñu kenn naan la jëlal kawar naan buy feeñu kenn daf lay jàngal bi ci des mooy euh, am na ku ñuy wax Ibnu Sina ñu di ko wax Avicenne. maanaam jànkat ak docteur boo xam ne bu mag a mag la. waaw joxe woon nañ solution ci ñetti mbir nee na ñetti mbir yi ñu bàyyi ko xel. bi ci des mooy li nga xam ni moom la ñuy wax psychose stress. Hmm. waaw nee na loolu mooy genn wàllu feebar su amee rek feebar am na. Hmm, hmm. kon loolu dañ ko te tey ji nit ñi tiit nañu te am na lu leen tiital. mais dina ci joxe dina ci joxe xalaatam. mu ni bi ci des mooy al it mi naan maanaam nga dal. ne loolu mooy genn wàllu saafaraw soo amee dal tranquillité mooy presque yow à moitié wér nga bi ci des nag mooy asabru mooy nga muñ mhm. ne soo muñee nag yow kon génn nga ci problème bi kon ñett yooyu moo fi mooy stress bi nga xam ne tey dugg na ci dëkk bi mhm. bi ci des mooy zikr mooy itminaan mooy tranquillité bi ci des mooy muñ lan mooy génne li nga xam ne nag mooy stress wala psychose boobu li koy génne mooy nit ñi faw ñu delloo seen xel ci yàlla mhm. xam ni yàlla moo wàccee jamonoom jamono jusin ne daf cee wàcce la ka ca neex tey deux mille vingt li ko neex mooy indi na benn soldaaram boo xam ni invisible kenn nu ko teg bët yebal ko nag ni ko demal def nangam ak nangam saa yu ko nee bàyyil mu bàyyi daa ci indi benn euh, anecdote ñu ni benn mbas dafa mus a am mbas mi ci boppam jóg solu ba ba dëgër nag jëm ci benn dëkk daje genn góor góor gi ni ko foo jëm mu ni ko ci dëkk sàngam mu ni ko loo fay wuti may damay dem faagaagal mu ni ko ndax ñëpp mu ni ko déedéet mille personnes laa fay rey daal di dellu si <laughs> ah, dem def la muy def dajawaate góor góor gi ni ko ah nakam mu ni ko def naa mu ni ko déet la nga ma waxoon defoo ko mu ni ko am ah, mu ni ko rey nga fa vingt mille personnes ñaar fukki junni de te mille nga waxoon mu ni ah mille laa rey <laughs> mais ñi ci des ragal moo leen rey ak tiit Mm-hmm. moo leen rey kon loolu lu am solo la it ñu ñu wax ci nit ñi mm-hmm. ñu dalal seen xel tamit xam ni sa pas fin du monde te loolu gëm yàlla moo koy indi mm-hmm. gëm yàlla bi mooy zikrullah yàlla ne woon na ala bi zikrillahi tatma innul qulub soo bëggee am tranquillité ne na nga def zikrullah zikrullah nag ñetti étape la day xarit dañuy def rek mooy mooy mooy naan allahuma salli wala yaa allah wala yaa latif loolu benn ji mais bi ci desit mooy sa comportement zikrullahi la sa comportement bi ngay am docteur wax na ko mooy yi nga xam ne mesure yi ñuy jël. Mhm. comportement la seet ak yow. bi ci des it mooy yow ci sa bopp en tant que nit. li ngay def li ko wax guddeeg bëccëg loolu tamit zikrullah la maanaam li ma bëgg a wax mooy saa yoo xamante ni yaa ngi jubal rek yaa ngi ci zikrullah liggéeyukaay ba nga jubal fa yaa ngi ci zikrullah mhm. ca sa biir famille nga jubal fa yaa ngi ci zikrullah ci biir société bi la la ca war nga def ko ca yaa ngi ci zikrullah moo tax yàlla ni bi zikrillahi tatma innul qulub suñu buggee am tranquillité rek mhm. il faut ñu jubal mhm. suñu jubalee rek daal di am tranquillité loolu it mooy li nga xam ni ci la l'islam bi woote comme nga gis ni objectif l'islam yëpp mooy nit ki nekk nit koo xam ni nit ku modèle lay doon mhm. moo tax ma ne woon sànq ci sama biir wax yonte bi nee woon na mbirum jullit day jaaxal na ko ndax léppam yiw la yàlla yàlla yàlla yàlla fay ko musiba am maanaam xiiwal am mu sant yàlla fay ko tey nag musiba am na kon li ñu war a am mooy defaat prise de conscience moom lañu war a def xam ne yàlla moo ñëw ak mbiram te am nañ lu mu santoon démb ñu bañoon caa jaar tey nag nee na nañ ci jaar yonte bi daana wax naan juróom-ñaari su amee rek dana ànd ak juróom-ñaar naam ci tudd ne woon na zina mooy njaaloo saa yu bare dembetteel am te tey gune gis na ko ah moom de démb rek la ma romb waaye tey suuli nañ ko gis nga ko bi ci des it neewoon na saa yoo xamante ni tooñ bari na rek yàlla yebal koo xam ne mooy mooy duma nit ñi tey yebal na ki xam ne kenn mënu koo gis mm-hmm. tooñ gi nu mu nu mu ku ne gis na tooñ gi mm-hmm. tey xoolal li ñuy rey ci doomi aadama xoolal li ñuy ëldëb xoolal li ñuy toj xoolal nangam ak nangam yooyu yëpp nga xam ne ñun ci suñu biir ñoo koy defante yàlla ne kon arrête kon jot na léegi nag ki nga xam ne nag moo alerté mooy kii mu yabal tey mm-hmm. di mi kon bu ñu delluwaatee ci yàlla ñaan ko rek incha allahu taala ànd ak waa kër docteur ci yi ñu wax tamit bu soobee yàlla daañu mucc lay génn incha allah docteur Ousmane kon ñu ñu ngi jërë jaajëfal Cheikh Bou Mouhamed Kounta mm-hmm. ñu bàyyi la kon nga tàggoo mm-hmm. ak euh, xëy na peut benn message faax booy mm-hmm. bàyyee suñu auditeurs yi bala ñu leen di libéré. waaw euh, d'abord di jaajëfal euh, Oustaz Kounta di remercier yow Ndeye di wax ni vraiment émission bu am solo. nga yor eh, Sénégal yëpp di ko suivre eh, di la ñaanal jàmm aussi. amiin eh, di ñaanal jàmm waa kër gi yëpp Sud FM. alhamdulilah moom ay xarit rek laa am ñoom bàyyi ma. Mm-hmm. donc di leen ñaanal di ñaanal euh, réew mi. Mm-hmm. yàlla dimbali ñu musul ñu ci feebar bi. Mm-hmm. waaw euh, vraiment may ñu jàmm. di wax sénégalais yi ni ministère de la santé ak action sociale. message bu ñuy wax moom mooy garder calme ak sérénité mooy dal euh, calme ak sérénité boole ci respecte liñ leen digal respect liñ leen digal muy wàllu état ci euh, représenté par le président de la république mesure yi mu jël boobu ba léegi nañ ko respecté waaw ñun itam liñ leen wax ci wàllu euh, médecine nañ ko respecté bu ñu ko respecté vraiment yàlla mun nañoo musal ci feebar bi dina dellu gannaaw dina jóge fii et parents yi aussi mooy li ma doon wax rek xale yi nañ leen téye ci kër yi ñu bañ leen a bàyyi ci biti tali du palaasu xale mm. surtout ci période bu toll nii ñu nekk ci jàngoro boo xam ne ñi ngi xeex ak moom mm-hmm. doo ko gis vraiment nañu aar population vraiment euh, man message bi laay am di ñaan kilifa yi ñi yokk ñaan euh, defe naa bu ñu ko boolee ak euh, médical bi vraiment yàlla mun na ñoo may jàmm jërëjëf docteur Ousmane Gueye Kone di directeur SNAPS moom lañ doon dalal tey jii ànd aussi ak euh, Serigne Bou Mouhamed Kounta di vice-président cadre de religieux pour la santé et le développement ñuy rafetlu aussi euh, seen teewaay ci wàllu sensibilisation ndax kuréelu diine lañu boo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi yëngatu bu baax a baax ci wàllu wér-gu-yaram mais aussi euh, mbirum développement loolu moom moo tax ñu souhaité woon tey jii ñëw fii ci plateau bi wax ak nit ci ndax itam euh, xeex bi euh, sensibilité ci wàllu diine da cee laxasu dégg ngeen ñoom ñaar ñëpp li ñu ci expliqué ñuy ñaan nag li ñu fi wax yëpp am euh, jeexital ci askan wi nit ñi am dégg topp ndax. Euh, defe naa comme ni ko euh, suñu président waxee démb combat la boo xamante ne ku ci nekk da nga ko wax euh, jël approprier ko mu nekk sa combat bopp ndax su fi jugee ñëpp la fi jógeel su fi lawee tam ba yaatu fi ñun ñëpp la fi lawandool ndax benn cercle dafa lay nekk boo xamante ne dañu nekk ci biir te xëy na génn ca danañu jafe ñuy ñaan bañ ci yegg ñu ngi ñaanal ñëpp kon jàmm di ñaanal Sénégal jàmm di ñaan jàngoro ji génn fi ci jàmm ak salaam ci itam nu mu gën a gaawee Alassane cun moo nekkoon ci machine bi Ndeye Khady nekk ci micro bi bi ñi ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain te di leen ñaanal euh, jàmm ak salaam di wax ne aussi ñi ngi nuyu euh, président euh, CRSD di Serigne Saliou Mbacké ndax moom moo organiser affaire bi yëpp bu ko defee muy lu ñu koy gërëmee di ko ko sant ndax seen participation ci xeex bi ci côté ministère de la santé ak action sociale émission bi di ngeen ko dégluwaat incha allah kon dimanche su brève bu 15 heures yi jeexee dinañ leen ko tegalaatal intégralement